WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.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 اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والفتح لما سبق نصر الطلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدر لما سبق نصر الطلاق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

amin ya rabbal alamin auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw ba ni sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen bal àq di ñaan yàlla boole ñu baal di leen wax ni yéen a ngi déglu seen rajo euh, daaray l'islam ngeen mën ko déglu ci WPAT 930 AM mën ko déglu ba tey ci www WPAT 930 AM online Eh, mën ko déglu ba tey ci ICFA online ñu di si gërëm Mountakha Sakho bu baax a baax mën ka déglu ba tey ci 212 5 901 532 5327 ngeen mën ko déglu léegi nag bu baax incha allah mu leer nañ ci asfiyahi point org eh, ndax rajo daara ji macha allah link na ak xale yi nga xamante ni macha allah ñooy waa eh, kër maam Khalifa Ababacar muy xale asfiya yi nga xamante ni euh, diine ji rek lañ fi nekkal link nañu ak rajo daara islam de rajo bi nga xamante ni moom fi nekkal euh, waa kër Seydi Hadj Malick euh, ñu link ak ñoom pour fas yéene lépp loo xamante ni rajo daara yaa ngi koy jàllale rek ñu di ko déglu en direct ci àddina wërngal képp ñu di leen gërëm bu baax a baax di gërëm Pape Khalifa bu baax a baax waaye di gërëm Cheikh Omar itam bu baax a baax a baax ñuy jiital ci e, ziar bi rek sunu sang yu tedd yi di e, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum e, di ko ñaanal wér ak wérle di ñaan yàlla yàggal ko fi lool mu ànd ak weer ak bépp kilifa diine bu nekk ci réew ma ñuy ziara bu baax a baax sama doom Chérif Mouhamad Lamine Aydara ca Rhode Island di ko ñaanal moom itamit wér ak wérle waaye du ma fàtte sama doom sama goro di amee dara ñu di ko ziar bu baax a baax di yónnee ziar bi nag euh, ba Washington euh, sang bu tedd bi di sëñ Ahmed si euh, ñu di ko ziar bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal wér ak wérle di ñaan yàlla yàggal ko fi lool si Malick Euh, ñuy ziyaara bu jël ziyaar bi di ko yónnee nag ba Thaïlande di ko yónnee euh, ki nga xamante ni tamit euh, fu mu toll mi ngi suivre rajo Daaray lislaam muy Serigne Badou si bu Alaaji Abdou Aziz Sy baax yal na yàlla yokk leeram ñuy ziyaar bu baax a baax sëñ Badou bu baax a baax ñu ziyaara bu baax baax itam magam ju baax ji di Serigne Mansour da baax ñu di ko ziyaar bu baax a baax di ko jox warawaayu maamam di ziyaara bu baax a baax sëriñ maam Alfa Si sëñ Papa Abdou Si waaye di jël ziyaaru xadara Malikiye bi yëpp ak njabootu Seydi Hadj Malick gi yëpp nag di ko teg ci loxo sëñ Adi Si mu joxal nu ko njaboot gi yëpp ca Sénégal muy xaritu rajo daara ji di soppee rajo daara waaye waaye Idrissa Gay tamit rajo daara jaa ngi lay ziyaar bu baax a baax njulli jullit yaa ngi lay ziyaar ñu di la walkam di la dalal jàmm ak salaam di ziyaar beral ziyaar nag oustaz Baytiir Laay ñu di ko ziyaar bu baax a baax muy soppee rajo daara ji ji di soppe jullit yépp ñu di ko ziyaar bu baax a baax a baax a baax ñuy ziyaar tamit euh, sangu yu tedd yi di Chérif Lal Fatima Zahra euh, nekku fi waaye ñu di ko yónnee ziyaaram ci barke maamam euh, di ziyaare ba tey sang yu tedd yi di soxna Safratal Makki soxna Umu Si Jamil soxna Umu Xayri Tidiane di leen ziyaara bu baax a baax a baax a baax gannaaw ziyaara yi ñuy ñaanal aju dawlu yi yàlla yërëm leen te yéex a ñuy yeewoo ci àjjana yi xippee ci àjjana yi gën a kawe te dee di seen noflaay ñi nga xamante tamit ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ak ñuy weeyaale feebar yàlla na nu jóg yàlla te kenn bañ tëdd bi jaay na bi Moustapha ñi nga xamante tamit ñoom la caabi féete gannaaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla mi nga xamante ni euh, moo mën yal na caabi ya leen féete gannaaw yàlla na leen féete kanam ñu génn ba mën delluwaat si njaboot gi mbokk juli yi mbokk taalibe yi rajo daara l'islam a ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar euh, di ziare bu baax a baax taximaan yi Euh, bu baax a baax ñi nu yóbbu indi yet ñi ñu yóbbu macha allah ñu ngi koy def ak xol bu rafet xol bu làpp tubarkàlla kaar bu bis bi jotee ku ne dana la woo am nga lu la yóbbu am nga lu la yóbbu ñu di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal yàlla. dinañu am léegi euh, maam fa itam mu ànd ak ñun si émission bi en direct incha allah léegi rek balaa euh, yàgg. Euh, ñuy gërëm bu baax a baax i taximaan yi ñuy jël si ñu di leen gërëm bu baax a baax nga xam ñu ngi jàppale rajo bi bu baax di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy julli si jumaa ca Arlem tay kondo ba ñu di leen ziyaar bu baax di leen euh, rajo daara ji di leen gërëm di leen sant ci nga xamante ni ajjuma bu jot. ku nekk la nga am mu tuuti mu bare di nga ko def ci rajo bi ngir bëgg rajo bi euh, jëm ci euh, kanam kon ñooñu amel nañ leen gërëm amel leen sant te di leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax waaye ba tey ñuy ñaa ñuy ñaanal ñi nga xamante ni ñooñu jàppale bu baax a baax ci rajo bi muy sunu sponsor officiel yi nga xamante ni euh, bis saa su nekk ñu ngi jàppale rajo Daaray Lislaam ku si mel ne Jibi Ndiaye Sahel International ku mel na si pharmacie ku mel na Africa Kine restaurant Bàcci Ñang sama góor sama xarit ku mel na Aziz Ndaw Ndukumaan moom it mi ngi jàpp ci rajo bi bu baax a baax a baax a baax ku ci mel na tamit taawu yaay dara da baax boutique solution ñu di ko gërëm bu baax a baax di ko ñaanal wér ak wérle di ñaan yàlla guddal fanam te wéral cëram ku ci mel na tamit Euh, bureau Modou Lo office euh, Seydina Senghor ñu di ko gërëm bu baax a baax di gërëm tamit African Community Services si eh, jàppale bi kon nag ñooñu nga xamante ne ñooy jàppale rajo daara ji ba lépp loo xam ne ñu ngi ko ciy def ñu mën ko ci def euh, te duñ ci am benn problème ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal yàlla kon ñooñu nga xamante ne ñooy jàppale rajo daara ji ak ñi nga xamante ne ñu ngi ciy def kobar jot na nañu euh, sa yóbbante jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax baax yaa ngi jàppale rajo daara ji foo toll ak ñi mel na yow ñu leen di gërëm bu baax a baax kon du ñu def rek daal di li dul daal di ñëw jox leen li nga xamante ni mooy ziyaaru rajo daara ji di ko ziyaare ñi nga xamante ni ñooy soppee euh, rajo daara yi rajo daara ji mu ngi ne ci diine xamle ko rajo daara mu ngi ne ci diine xamle ko rajo daara ji ma sant ti bi ma may xelam ba ma woy rajo yaayu daara mi nu ñu am te fonk ko rajo daara ji mu ngi ni jëf ci diine xamle ko rajo daara ji mu ngi ni jëf ci diine xamle ko kii li njëriñ mu dal di la wax xew mu dal di la fi ci réew mi ak li ko njëriñam xebe su rajo daara ji mu ngi ni ah jëf ci diine xam na ko rajo daara ji mu ngi ni jëf ci diine xam na ko waa ki lislaam moo ko tax a ngir xamal jullit yi fi ne nan la ñuy jëfeeg di selal. Ah. seen diine te sàmm rajo daara ji mu ngi nii. ci diine xamle ko. rajo daara ji mu ngi nii. Ah, jëf ci diine xamle ko. waaw kulli ma arbaati si nayin te di lay xewee. e yam la waaye du FM la oustaz Ablaye jàngale. ci diine te xel ko rajo daara ji mu ngi nii diine xam le rajo daara ji mu ngi nii diine xam le ko waaw kul yow ma arbaati sanayin te di lay xewe em la waaye du fm ca uslay ab lay jàngale ci diine te xam le rajo daara ji mu ngi jëf ci diine xamle ko rajo daara ji mu ci diine xamle ko yaayu daara nga fa toog di ñayuk xare bu ñu xam di jëfëkk jullit yi fi ne yal na yàlla sàmm ko rajo daara ji jëf ci diine xam nga ko jotaare ji mu ngi nii ko daara ko ji mu ngi nii diine xam nga ko rajo daara ji mu ngi لفت دين خملكم خلصت مود كلهم راني نانيلا ndax yaa ko jëf umu kalsum mu na yow mateefu nga ko rajo daara ji mu ngi ni jëf ci diine xam le ko rajo daara ji mu ngi ni jëf diine xam le li nga nar jàng at la lay Ablaye Diop sa ci benn bis ci rajo ko yaayu daara ji fonk leen ko teewlu ko rajo daara mu ngi nii. Euh, kon jërëjëf ñuy gërëm bu baax a baax di sant euh, euh, Abdou Aziz Ba sama doom ak Haj Mbay doon deek ñi mu àndaloon ñëpp doon bégal rajo daara ñu di leen gërëm bu baax a baax di leen sant te di leen ñaanal bokk jullit yi bokk taalibe yi tey rajo daara ji dafa ñëw ngir indi leen loo xamante ni dafa Euh, dañ koy euh, màggal mooy euh, bis bi nga xamante ni mooy appelu Seydina Issa Laye mu góor baax googu nga xamante ni moo nekk ca Yoof Euh, wax wax ju rafet bi muy Hadjibou Bahilaye euh, ñu am nag euh, sunu soppe sunu xarit sunu ustaas nekk ci ligne bi waaye bala ñu koy dugal ci ligne bi rek dañuy ñëw joxe li nga xamante ni mooy ziar bi nga xamante ni mooy ubbi rajo daara ji di sang bu tedd bi di Seydi Aboubacar radiyallahu taala yal na yàlla lu yokk leeram لله المستقيم boo ko jullit yi mbokk taalibi ñu di leen fàttali nekk nii képp koo xamee bëgg na déglu émission bi en direct si sa téléphone mën nga ko déglu si 605 475 51 91. cinq 605 475 51 81 605 475 5191 kon mbokku jullit yi mbokku taalibe yi lu ñu def lu dul rek bàyyi leen ak bay Baytiir Laay ci xam-xam bu rafet bi xam-xam bu sell bi nga xamante ni fu mu waxee jullit képp kuy julli rek di nga ci gis sa bopp te di nga ci jëlee euh, njëriñ boole ko ànd ko ak yar ànd ko ak teggin di wax lu rafet loo xamante ni ñëpp daañu ko ci euh, jëriñoo kon ñu di ci ziar bu baax a baax a baax euh, waa kër Seydina Limaamu di leen ndokkeel bu baax a baax ci xew-xew bu mag bi nga xamante ni ñoo ngi koy dégmal di ñaan yàlla yóbbu leen ci ci jàmm ak salaam te delloo si leen ci jàmm ak salaam te lépp luñ fa taataan yàlla na ko suñu borom nag ñu di ci ziar bu képp koo xamante ne rek njabootu Seydina Limaamu di ziare daayira Laayeen bi bu baax a baax dinañ ci yow léegi rek incha allah Euh, ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la dalalati ci euh, rajo daara ji waaw ndax euh, kenn dootula la présenté ci rajo daara ji ndax soppee rajo daara ji nga di nga dugg ci rajo bi di nga ci wax loo xam ne ñëpp daanu ci taataane loo xam ne dina leen jëriñ foo waxee rek nit jële fii loo xamante ni macha allah bu dellu bu dégloo sa waxtaan rek dina xam njëriñ kese la euh, ngeen di waajal nag xew-xew bu mag boo xamante ni mu ngi am le 15 incha allah di am ca Rhode Island euh, hmm, ñu fas jëgal jagleel leen nag tey euh, rajo daara ji jagleel leen daara ji ni mu koy defee kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yépp kër gu ci am xew-xew rek incha allah rajo daara ji dina la ci dinga ci dina la ci euh, dugal ba nga gis sa bopp incha allah kon oustaz bismillah bismillahi rahmani rahim aoudu billahi min ashitaani rajim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, soxna yaay daara ji yow ak ñi bi seq ak ñoom daara ji ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am kontante di leen ñaanal di leen gërëm ci turu xalifa bi ak ci turu communauté Layeen bi yépp euh, di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen jox nuyoo bi gën a sell gën a tedd ci lislaam euh, fa tabarakallah nit moom boo ko xeebalul yaakaaram xeebaloo ko bésam worma ak yëg mënu ko kawe te nit nag bu la yëg daanaka jox na la li muy joxalanteeg boromam juróomi yoon ci waxtu julli kon ñu ngi ndokkeel umma islam bi yëpp ci bés boobu nga xamante ne moom la ñu ndax Sénégal màggal nañu ko waaye fii ci États-Unis nañu ko def incha allah samedi ak jàmm ci Rhode Island mu toll ak le quinze. kon mu nekk bis boo xam ne ñu ngi ci ndokkeel kilifa diine yépp ak xalifa yépp rawatina kilifa diini ak imaam yi nga xamante ne ñoom lañu ñu nekkandool ci réew mi. Eh, di ci beral ndokkeel nag sunu consul général. ndax moom jaboot la ci kër gi sët la itam ci ki ñuy màggal bésam bi yàlla gis yi di ñoom ak équipe bi muy liggéeyandool ñepp ndax wax dëgg yàlla ñoom itam ñoo fi sunu kilifa fii ci réew mi di am kontante lool soxna yaay daara ji ni ngi koy defee daara ji ni duna turam ndax daara dafay tëdd njaaxaanaay du am fenn fu ñu koy féetale kon wax dëgg yàlla ku ci xewle ci këru diine yi nga dal di jël bésam dal di ko jagleel daara ji loolu itam ci ràññee la bokk kon nag daara ji yal na ko yàlla barkeel ba mu àgg fu kawe seen yaakaar ak seen njort ba borom bis bi ñuy màggal bésam nag euh, dafa woote woon ci 1883 ne ajibu daa'iya Allah yaa ma'ashara al jinni wal insi inni rasulullah ilaykum na ngeen ma wuyu si woote bi ma àdd wooteel ko yàlla boole ko nit ak jinni mu ne ndaw laa leen yàlla yónne kon tey ñu bi nga bo awte boobu ci ba mu toll ci téeméer ak fanweer ak ñett ngir dugg ci lenn rek ci histoire jëm lu gàtt dal di bàyyi mbokk yi itam ku ci bëgg a ndax waxtu dafa xat yàlla dogal itam bi nga xamante ne yàlla na mën ak feeñam ndax ci xeexu Samba Sadio boobu nga xamante ne jihaar la ju Seydina Umarul Fuuti tàmbali woon bi mu demee doomam bu ñuy wax Ahmad ci ci la mbokki Lebu yi déggee jooju nii dañuy dem ngir jàppale ko fekk booba fukki góor ak ñett ñu jógee ci yoof jamono yooyu ñu ngi tudde tànk ah, wii juru seen alimaamu di maam kenn la ci fukki góor ñooñu am ñett waaye bi ñu agsi Ahmed Cheikhou di ci Omar il Fouti radiyallahu taala anhu def leen wax ne fan ngeen bàyyeekoo ñun ko tànk mu ne yéen waa tànk dem leen ngeen xaar diine moo leen di fekk si yéen doo leen fekki diine ndax imaamul mahdi mi war a yeesalaat diine ci mujj jamono ci yéen la judd kon su ngeen demee ku ci am doom naka tudde limaamu al mahdi yu te limaamu foofu la jóge waaye ci waxin lébu ceddo la ñu woon boo seetee turu limaamu daf lay jaaxal sax cosaanam fan la war a mën a jóge waaye foofu la turu limaamu jóge yàlla dogal ñu ñee bi ñu dellu see ñu taawloo ay góor yàlla dogal maam Alassane Thiaw di wéjuru seyna limaamu bu góor moo ci mujj am am limaamu waaye bi njabootam juddu ba mu tuddee ko turu limaamu ci la limaamu yu ko jiitu woon yépp faatu kon turu limaam mi foofu la jóge moom itam mu dal di yeesal ni nekk na ci xuntu Ngor bi maana am na benn xunt boo xam ne barab bu tedd la bu ñuy faral di ziyaara mu ne làqu na fa junni at guddi gu ne yàlla dana jël leeram mu wër àddina wër ngel këpp waaye bi yàlla dogalee mu seet ba gis askanu lébu seen yaatu seen yiw seen baax ak seen man dalal gan mu ne ñii de dinaa leen tànn wàcc ci ñoom comme dama war a wooti àddina fekki si ma dana tànn xeet woo xam ni danañu am yaatug daloo gan ñi nga xamante ne gani yàlla lañu yàlla dogal bi mu tànn askanu lébu itam war a tànn jëm jigéen lay wàcc mu tànn ci soxna su baax mu di wéy juróom bu baaxu di soxna Kumba Ndooy Euh, lan la ko tànn ci yiwam ak sellam ndax gis na ni jigéenu lébu ya mu doon di sungundool ci géej gi yëpp euh, ngi sàggane seen yaram di sàggane seen awra ak seen cër waaye moom nag yàlla dogal soxna si nekk ku sàmm ku fegu ku suturlu ci awraam sëy naa limaamu booba nekk gul jinn ju ñu mën a teg loxo mu ni jigéen ji daal sellam ak yiwam mooy ndab li yàlla war a yàkk sama leer kon moom itam ci loolu la ko tànne moom soxna Kumba Ndey Mamu yàlla dogal itam ci gàttal rek na historique bi dafa yaatu euh, fan yi mu génn mu nekk ka zu rajab bari na ay xew-xew yu ci am ndax ci la yàlla yéege woon yonent bi muy isra wal mi'raj mu dem andi ñu bu mag boobu di julli euh, ci ka zu boobu di ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci la yàlla dogal soxna ci génn àddina fekk lu jikka mu génn àddina mu ngi waxtaan ak benn doom di jooyam nekk fan yi ñu dëkkmal day dana am jigéenu wàlliyu bu mag bu fi jóge gannaaw bu fi jógee dana am mbir mu mag mu xew gannaawam fekk booba mu ngi junje Eh, wax dëgg yàlla yuy jural ñu war a wàcc liggéey di soxna Kumba Ndoy kon soxna Kumba Ndoy ci Kazu Rajab ci la génn àddina ba mu génne àddina ñaar fukki fan juróom-ñaar juróom-ñett juróom-ñeent yooyu yépp Seydina Limaamu lekkatul naanatul eh, noona nag ci ñi mënul xam dal ko àttee rek ni dafay gellu demuk yooyu juram jellu bi maana mooy metti lu ba wan gannaaw lekk ak naan bi yàlla dogalee loola am itam ah lébu yi ci seen baax itam bu ñu masaani gis lu leen jaaxal dañuy dellu ci seen baax ak seen cosaan muy lu ñuy tudde ay xab ay rab ak i waaye gis nañu ni daal ñu dañu ko sampal waaye bu ñu dajalee seen dugub yi ak seen kuur yi dañuy jekki rek gis mu naaw daatuñu gis dugub daatuñu gis kuur daatuñu gis dara ah ñu ne kon nag mbir mi dootul cosaan ci la ñuy fëgg nitu yàlla yi ci la dem ci góor yàlla gu mag gu ñu tudde góor gi maxu ci njooro ah dem ak ci tafsir njaga waaye ba ñu demee ci góor gi maxu ci njooro góoru yàlla gu mag la woon mu leen dal na ngeen tey ci mbiram eh, na ngeen wax ni lekkatul lu nit wala lu jigéen di waajal ci loxoom waaye gudd gu ne danaa gis ay malaka yu jóge ci arash di ko indi lekkam ak naanam ah ñu dem ci tafsir njaga ba ñu demee ca bi fan bi mu ne daal na ngeen jël kaamiru alxuraan bu mat comme moom boobu bu léegi laa ilaha illallah daal mooy waxam amul leneen lu ko rax ndax fan yooyu mu lekkul naanu itam dafay yëkki zikru laa ilaha illallah fu baatam joti nelaw mu ngi ci bëccëg mu ngi ci ci lay xëy ci lay yend ci lay gont eh, mun leen na ngeen koo jël kaamilu alquran bu mat dal ko ko naane ci dënn bi bu xëyee lu yàlla làq ci mbiram rek dana feeñ eh, ci noonu nag ci la ñu def loola leen tafsir njege gi waxoon fa tabarakallah ba mu xëyee nag ci la wax ne jaal amrul azam mbirum yàlla mu mag mi nag ak si na ci la wootee wooteem bu màgg boobu nga xamante ne tey jii fa tabarakallah moom la ñuy fàttaliku loola ci gàttal mooy historique bi waaye bi mu ñëwee itam daf ni mooy mahdi yu muntazar mahdi yu muntazar nag dafa am benn rôle bu mu war itam ci ummatul islam ndax sëriñ si xàll tarixa ñu leen di tudd ay nitu yàlla ak sëriñ si xàll ngir ñu leen di tuddee ulamaul mazahib kenn ku ci ne dafa mel ni génn dëgg rek nga doon di jaax waaye mën na particularité am mooy ni yàlla moo koy jubal ci li nga xamante ne moom la sëriñ si doon di jaax kon bi mu ñëw itam dafa indi loo xam ni euh, yeewal la ci diine innovation boobu nag euh, bari na waaye dañu indi rek daanaka ñett moom ba mu ñëwee fekk na euh, jigéen ak ndaw boole ñu leen ci diine waaye moom ci yenn man njàngaleem dafa wax ni pénc mu ni ñaari jëmm yi ñoo koy yenu kon ëllëgi pénc mi ci ñaari jëmm yooyu lañ leen war a waajale ndax bu ñu fàgganee ndaw xam ne ëllëg bu fi mag ñu newatul mooy yenu seen yel utu leen ci seen place jigéen bi nga xamante ni moo war a waajal ndaw ci biir kër gi itam bu ñu ko sàgganee ne ne diine du fi gaaw a taxaw moo tax waykatam ne kuy xeñtu lislaam te doo lakkal ji doo lakkal xale wante ko yoon doo teela jigéen ak bu muy nuyu penc moom mu ne loola mooy mbasum diine mbas mooy crise kon mu ne loolu jàngara la ci diine pour wane rek ni bu ñu beddee xale bi di jigéen ci diine nee diine amatul dara ci kaw su amatul dara ci njaboot yi ci njàngaleem nag mu ne kon euh, xale bi nañu ko teel a bu ñu ko laata teg ci daara buy jël allibe di teg ci penkam jigéen ji itam mu ne bu ñu ko ngénte itam ci bu nekkee liir bu tooy nañu ko utal sëriñ teg ci bu mu sëy waaw ñun ko limaam ñu ngi jublu ci loolu mu ne waaw ndax xale bu jigéen bi nga xamante ni teel nañu ko utal borom kër teel nañu ko utal kilifa bu génn ci mbedd mi itam dana xam ni moromam yi muy dajeel ci mbedd mi lañu sañ moom sañu ko kon ndax xam na ni am na kilifa loolu itam mu nekk yar bu am solo boo xam ni xale bu jigéen bi dañuy teel jëli yu yar ko ci dañuy teel a jël sellati tàggat ko ci moo tax xale laayeen bu jigéen boo gis rek may nañ ko bu mu sëy loola nag du mariage forcé du itam mariage précoce ndax loola dañ koy def muy mayu ndëf te nag mayu ndëf ku jàngal islam di nga xam ne itam loola euh, sunna la ndax moom la ñuy tudde ni caaxu taswit ndax yonent bi tey bi ñu koy may Aïcha juróom benn at la am waaye taxul mu dugg ak moom nekk ba muy dugg ak man nekk ne nañu dem na ba am fukki at ak benn fukki ak ñett ndax jigéenu arab daf ñu dañu précoce waaye yonent bi yar ko ci këram raawante ya mu noon dafa gaa añ ci kër yi yëpp mooy booba dafa wàccee boppam ndax booba xale la yor muy koy yar di ko tàggat moo tax loolu itam am na résultat parce que ba muy joxoñ yonent bi kàngami l'islam yëpp toog mu ne fu ngeen gagati ci diini li ngeen dem ci jigéen bi mu gàddanti leen booba soxna Aysa dix-neuf ans la am kon loolu dafay wane ne moom daf ko waajalal boppam yaral ko boppam uuteeg soxnaam yoo am loolu nag la fii na li moomu teeleen di mu ne kon xale bu jigéen bi nañu bàyyi buumu fii boobu ci moom bu demee ba tollu nag ci xam-xam ne ñun ko mayoon nañu la diw kat nañu def bu bëggee mën nañu wayale fii bi du mar ci yeesal pas-pas bi bu bëggul nag nañu xaar ba mu am ku mu bëggal boppam ñu jël ñun tak tarang fekk sëy bi di soor a fas sëy bu yees mu tax bu mariage forcé dañu koy tànnaloo bu demee ba nekk xale bu jigéen bu mag xam-xam ne bu tànnalee boppam sëy bi bu tànnalul boppam ñu fekk ci fas fas bi kaña bu ñu koy may jëkkër waaye loolu dafa am solo lool parce que boo xoolee jamono bi ñu toll tey xaawaku yi nekk ci mbedd mi yiwu di gi nekk ci mbedd mi ci jigéen ñi euh, doo ko fekk ci jigéenu Laayeen ndax am na nu ñu leen yare kon euh, jigéen ji nga xamante ni macha allah xaayuwul poojam ci mbedd mi xaayuwul yaramam ci mbedd mi njaboot ñëw mu dal di ko teg ci puju yooyu dal ko uuf ci dënn bu yiw woowu taw si duñ ko nampal itam mu dal di ko xonte njabootam jigéen ju ju ku ne rek war na dal xel ni lu mu jox mbedd mi ci njaboot rek njabootu barke lay doon fa tabarakallah loolu benn la ci ñaareel bi itam bi mu ñëwee moom di benn politique sociale bu am solo ndax nag lébu dañu fonkoon juddu ak néeg ak askan ba di ci beddinte di ci xebante moo tax moom bu mu ñëwee limaamu ceew la sant mun leen nañu bàyyi sant yi ñu doon ci maam yeeg bàyyi te sant yàlla ndax ñoo ko bokk ndax ki nga dajal ci yàlla waratoo ko xeebe néegam waratoo ko xeebe askanam ñun ko li ma marché nag sant dafa forme ñun dëgg la waaye kenn ci ñu ku demoon marché ba soo jëndee jaam itam da koy jox sa sant bopp te moo am na nit am na luy jur ni waaye xëy nga rek di sangaan ci àddina tax nga jël sa askan jox ko jël seesanta jox ko ñun ko ah li moom loolu de dëgg la mu ne kon nag yàlla moo gën a yeey bàyyeeg maam yi ci kon nag nañu dellu ci yàlla kon loolu lan moo tax mu nekk politique sociale moo tax boo ñëwee ci këru maamu doo fekk ne kii dañu koy xeebe juddoom wala dañu koy xeebe néegam wala dañu koy xeebe askanam kon donc mu dal di ñëw abolir li nga xamante ne moom la tuddee problème mu ah bi amoon ci wàllu raas ci wàllu ethnique yooyu yëpp na limaamu dal di ko ñëw mab ngir lan dal installé wala installé benn société bu homogène boo xam ni du am dara lu ko infiltré kon li nga xamante ni itam mooy ay askan ak juddu wala nit fëgg sa bunt nga am loo koy xewi ba doo ko jox sa njaboot loola itam amul ci penc mi seen yar ndax ñëpp lay la ñu sant waaye lay googu ñu sant itam dafay firi ni amatul askanu kay amatul askanu daanu amatul yax bu rëy amatul yax bu woyof ndax ñun ñëpp ñoo maase kenn ku ci ne man nga goronteeg moom man nga jël sa doom man nga jël doomam loola buñ ko doon wax tey ci lislaam lu yaatu la te lislaam loolu rek la considéré ndax yonent bi ne ni isa ataakum man tardawna diina wa xuluqu fa zawijuhu illa tafaaluhu takun fitna wa fasadun arida law fil ard mu ne ku sàkku seen loxo njaboot gu jigéen mu ne ñaari paramètre ngeen am natta leen jikkoom natta leen diineem bu ngeen ko xeebalul ñaar yi nag may leen ko seen njaboot goronteeg moom waaye ñàkk goronti ndax lan du ma sa nawle ñàkk goronti ndax lan bokkuñu waaso mu ne loolu bu yaatu ci yéen jullit ñi rek am na yàquti bu muy yaatal ci seen société te kenn daatu ko mën a tabu loola benn la bu ñu ñëwee itam ci wàllu azaka loola tey dafa sonnal borom xam-xam yu bare bari ndax ko ci wax ni alal ju atal waaye seen alimaam bu mu ñëwee dafa am benn waxu yàlla bu mu ñu firil mu ne wa aatu xaqahu yowma xasadihi génne leen aqu yàlla ci seen alal ci jamono bi ngeen ko góobee li ma mën a ngallawee bu leen jël góob yemaan lekk ci mbay ak béykat mu ne kuy daan sa doole ku ne boo fayee koo sa ña xamu ne góob nga li la yàlla war sa loola nag boroom xam-xam yu bari limaamu daf gen joyyanti gàddantu leen ci foofu te nag xel nangu loolu ndax béykat bi nga xamante ni tey boo xoolee revenu bu góor bi lu mu bari bari amaana ay millions la yu ñuy wàññi mais kii yor agence immobilière am wala médecin bi ubbi cabinet médical am wala avocat bi nga xamante ne métier am autonomie la yor mais kooku li béykat bi récolté par an moom mu am ci fan wala ay weer yu kon l'islam warul mën a jël béykat bi teg ka azaka dal di ko teggil avocat bi wala médecin bi wala borom agence immobilière bi loola tax Seydina Limaamu mu ne nañu nafaraat li yàlla wax ne góob ñu ne góob kay bu dee ne da nga góob ci bés bi génnal axu yàlla boo góobee ci hebdomadaire bi génnal axu yàlla boo góobee ci weer yi génnal axu yàlla ndax loola contexte moo ko waraloon ndax bu jëkkoon commerce moo amoon ak mbéy commerçant yi dañu daan di ñëw associé nit jaayal la ba at mi su booba nga génn say retombées ak say bénéfice loola ngeen génneel ko azakaat waaye dafa dem ba contexte bi sa soppeeku moo tax seen alimaam itam loola mu dal di ci joyante a jamono mu ne kon nag góob googu dafa mel ni dañu koy yemaatle woon ci mbay ak béykat waaye mu ne bépp aji liggéey boo daanee sa doole ba jot sa ñax nene ne góob nga kon nag génnal axu yàlla ci li mu la wërsëgale kon daal soxna yaayu daara comme waxtu dafa xat te mbokki taalibe yëpp war nañu dugg ci antenne bi ah, bokk ndokkeelante ak umma islam bi bokk ndokkeel itam daara ji kon ngi lay delloo kàddu gi fa tabarakallah di la sant di la gërëm di ñaan daara ji itam yal na ko yàlla barkeel ci barke borom bis bi di leen jotal itam kontante xalifi bi mhm. ak ahlu bayti bi ndax ñi ñoo leen fi représenté mhm. di leen jotal itam kontante ak ndokkeelu confil général mhm. ndax waa Yoff la njaboot la itam ci Seydina Limaamu mhm. kon dafa mel ni lii bu ñu ko defalee communauté bi itam defal nañu ko ko moom mhm. te tey moom la yàlla dogal mu toogal fi Sénégal mhm. kon mbir moom itam kon ni muy jotale kaddu xalifi bi noonu lay jotale kaddu ma ngërëmam wasalaamu aleykum wa rahmatullah euh, oustaz allo euh, euh, appel bi ñëpp xam na ni incha allah le quinze la waaw Euh, léegi euh, euh, xam gaa ñaa ngi woote xam naa ni bàyyil ma jël ñi nekk ci ligne bi. waaw waaw ñu daal ñëwaat ci li la bëggoon laaj. waaw bisimilah. daaray lislaam bisimilah. maaleykum salaam. waaleykum salaam wa alo oui. waa ba Baytiir. oustaz waaw euh, euh, sëñ Libaas la man la Libaas Thiaw. waaw kon la Libaas waaw bisimilah. Mhm. ñu ngi lay ziar bu baax sang bi. waaw yàlla yàlla na ñu ziar suñu Libaas. ñu ngi lay ndokkate di lay ñaanal suñu borom bi tabaraka wa taala. amiin amiin yaa ngi ko yàlla nangu. yàlla suñu borom bi sa fant musal la ci lépp luy lore. amin amin amin amin yàlla na borom bi leeral xam-xam bi te yokk ko. amin amin amin di ko ñaanal yaayu daal di ko ñaanal nag waa Tijaan yëpp ndax seen rajo boobu bu lu woon loolu tamit lépp du mën a jàll kon ñu ngi ciy sant suñu borom di leen sant bu baax a baax. jërëjëf kon ñu ngi koy gërëm moom Cheikh Béthio te di ko ñaanal suñu borom bi te tabaaraka wa taala. Mm-hmm. ci barke Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam li ma bëgg ci àddunaam moo xam yàlla na ko suñu borom defal ak mbooloo yal na leen suñu borom bi defal jàmm ne àdduna ak yow àllaaxira. amiin amiin na suñu borom defal ñu ay xéewal fii defal ñu ko fa li ñu jëm ci Sénégal. amiin amiin amiin. yàlla wàccal ñu ay xéewal teraanga sutura te mosuñu ci lépp li lor barke Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam. amiin amiin amiin. man nag maa ngi invité sama mbokk yépp ba mhm. gars yi leen le quinze incha allahu rabbi. Mhm. Mhm. Eh, Cheikh Baytel nag kon ñu ngi lay bàyyi kàddu gi incha allah comme ak ñi bëgg a dugg bàyyi nañu bari nañu. jërëjëf ñu ngi ñaanal suñu borom bi tabaraka wa taala yal na yàlla faj ci xaaju. yal na yàlla lewal rek incha allah ak Seydina Limaam Mahdi alayhi salaatu wa salaam. amiin sëñ bi baax jërëjëf. jërëjëf jërëjëf daaray lislaam bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaay Daara man la Dame Diop laay. ah président laaj ma taar. laay laay ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax waaw ustaas ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax yooyu nangul ziar bi la delloo ziar bi itam eh, di am kontaan lool ci waxtaan wi mm-hmm. xam naa ba bala may ñëw ci yoon nag yaay daaraak ñu mu àndal ñoom Fane waa Fambaw ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm ndax ñu ñu ko defee ci yoon noonu lañu ko defee ci kër yëpp dëgg na ñu ngi bégal diine ji fépp ñu ne ñu ngi góorgóorlu itam fu waaye woote ñu ngi fa taxaw di def lañu mën ak lu ñu mënul Euh, nañ leen ñaanal yàlla yokk seen kar bu baax a baax a baax ñu ngi siyaare xadra bi yëpp dañ la commencé ci imam Dieye mm-hmm. ak ñu topp ci ginnaawam ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi mm-hmm. siyaare bokk ci dëkk bi yëpp mm-hmm. di am dégte di am dégte lool nag waaw mbégte bi ñu am daal yàlla na ko yàlla am yàlla yàlla na yàlla bég euh, ñu ngi ñaan daal li nga xam ni moonu tax a jóg nun euh, jullit yi ne fii yàlla na ci yàlla doole kàttan yàlla mi nga xam lu baax moo ko baaxal yàlla na yàlla baaxal lépp yàlla nañ yàlla jubal yàlla nañ yàlla jubale yàlla nañ yàlla xiir ci boppam ñu ngi am kontaan lool ci waxtaan li ci def ne dañu koy dencal bañ dem Rhode Island waaye incha allah duma koy denc waaw euh, xam naa ne am na loo xam yaay daara tibb na ko ci waaye nag euh, noonu la la ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant bu baax a baax vraiment yaay daal moom ku baax a baax la moo ñu muy àndal ñëpp ñoo ah, ñëpp wax dëgg yàlla ñu baax lañu mm-hmm. Euh, yàgg na ñoom ci dëkk bi lu baax rek laa leen xam ci ñoom ci baax la ñu ne guddeeg bëccëg kan mm. nañ ci yàlla gën a jàppale vraiment kontaan nañu yàlla yàlla kontaan ci barke Seydina Limaamu Laay jërë ngeen jëf euh, asalaamaaleykum euh, président consulat Muxtaar président allo waaw bëggoon naa bala ngay dem rek ñu xam programme bi nu muy tëddee incha allah waaw ñu ngi préparé dinañu jël ay boos. Mm-hmm. dugg mm-hmm. allah ñu ngi gaare ci Euh, euh, euh, San Nicolas bi. Mhm. diggante cent vingt cinq ak cent vingt quatre. incha mhm. foofu ci arrêt bi rek fi la ñuy gaaree ba sowala bi yoon nag dañoo bëgg na teel a déparé fii. incha allah ndax comme dañuy wàcce kaamil ci yoor-yoor bi. Mhm. dañoo bëggoon six heures du matin la daayira wax fi départ bi yoon pour ñu fekk di wàcceem kaamil ba ñaan yeeg yooyu daal. incha kon képp ku bëgg a dem nag man nga maa man daam laay. incha allah nine one seven. six two seven. nine four oh incha allah. 627. 94 09 ku ma woo rek dinaa la gën a jox information yu gën a yor ñu ngi ci woo ñëpp nag. Mm-hmm. Euh, xam naa ne tombé naag euh, guddik euh, soxna soxna Saafara Taal. moom tam ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax moog soxna Oumy Sy Jamil ñoom tam seen taxawaay gis nañ ko vraiment ci diina ji yëpp. di leen ñaanal yàlla na yàlla yokk seen maqaama ci daraje seen waajur yu baax ya eh, li ñu wax seen waajur yi ci mbaytiir wax ak ñeneen ñëpp xam nañ ko mhm. ah, loolu dëgg la ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam moo barkeel li ci problème bi rek mooy bis yi dañoo daje mhm. Mhm. waaye wax dëgg yàlla amoon nañu yéene lool fekk bis bi ndax su ñu ko manqué ñu ngi daal itam gan ñi nga xam dañoo ñëw ci bis boobu na ci dëkk bu nekk ay kilifa am na ci oustaz boo xam ni eh, mooy jàngal sama soxna ca Tëngéej bi muy ñëw la ma ni ma bu ñëwee na nga ko siyaari man ko bu soobee yàlla yaakaar naa tey ji war na agsi mhm. euh, yàlla na ko yàlla agsil dalal ko ci jàmm mhm. bi jaay Seydina Mouhamed jërëjëf du ma téye ligne bi yàgg xaw naa cee yàgg sax kontaan nañ lool jërëjëf lay lay yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm ak salaam daaray lislaam bismillah allo allo daaray lislaam bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw soxna Yadara. waaw Laye Matar Laye. na nga def ñu leen ziar bu baax. kazaalika ñu ngi la koy delloo bu wér Laye Matar. da nga ubbi antindi wala. waaw ubbi naa ubbi naa waaw waaw. waaw ñu ngi nuyu mbokki talibé yëpp. ñu ngi ñu ngi lay fay bu baax a baax. di ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel eh, rajo bi. amin amin amin Laye Matar. te yokk say xéewal ak sa fan may lu wér yaram. amin amin Laye Matar amin Laye amin. Eh, dañoo mbégte si seen béykat muy euh, wax dëgg yàlla boroom xam-xam bu ràññeeku te it euh, moom sëñ Baykal moomu dafa dul n'importe qui si waa kër Seydina Limaamu ma bëgg ñu ràññee loolu ndax yàlla dafa dogal ba muy nekk mu xaddamu laayeen boobu dix la am fukki at ak ñett weesuwu ko te li may bëgg wax nii Mm-hmm. am na ñu ko fekk woon kenn ci dëkk bi mu Souleymane Maroon ndax mm-hmm. mille neuf cent soixante quinze la mm-hmm. ba muy dem di gëstu mbiru Seydina Limaamu mu fekk si jamono yi bàyyi Seydi Thiaw muy seen Issa mu ndaw nekk xalif xamul woon tax ko baytiir mais bi mbooloo mi ñëw ñu nekk ay ndaw mu ne kan mooy baytiir si yéen ñu ne ko kii la mu ne mu ne ko ndigal laa jot ci mu xaddamal la kon defe naa ne kii Euh, fii sag na. WPAT Patterson. AM 930, New York. It's WPAT. WPAT. أنت الأول والآخر الباطن والظاهر mbokk jullit yi mbokku taalibe yi loolu la leen rajo daara ji indiloon tey doon ko ziyaare sunu mbokk euh, jullit yi nga xamante ni ñooy sunu mbokk laayeen yi nga xamante ni ñu ngi waajal appel bu mag boo xamante ni ñu ngi koy def ca Rhode Island ñu di ci ziyaare laayeen yépp nag ñu nekk ci euh, Amérique ci cinquante 52 états yépp ñu ngi leen ci ziar bu baax a baax di leen ndokkeel di ñaan yàlla teg leen ci yóbbu leen ci ci jàmm euh, di ziar bu baax a baax a baax a baax kodelaay ak daayira layen bi yépp ñu di leen ziar bu baax libaas caw laay ñoom ñépp ñu ngi leen di ziar euh, bu baax a baax di leen ci ndokkeel tamit euh, bu baax a baax a baax a baax di ziyaare bu baax a baax sama doom bas eh, laay muy waajal eh, tamit guddi gu mag goo xamee mi ngi ko jëmale ci ki nga xamante ni moo daan eh, médiateur bi nga xamante ni moo daan ñëw di jokkale di def lu baax ci diine ji ak lislaam muy Chérif Ousseynou Laye mu di waajal nag bis bu mag boo xam ni premier juillet incha allah lay am euh, ci Harlem taekwondo bi dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu incha allah. bu leen ko tee amoo xarit doo kon ñu di leen ziyaar bu baax a baax waa kër Seydina Limaamu di leen ndokkeel di ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak uh, jàmm ak salaam te buñ ci yóbbu uh, yàlla nañ ko tal yàlla nañ ko uh, fekkee jàmm te tal ko jaay na kon loolu moo doon ziyaaru waa kër Seydina Limaamu yi jërë ngeen jëf ñuy si sant bu baax a baax oustaz Baytiir di sant bu baax a baax tamit waa soppee na bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu fësalal oustaz Baytiir ba ñu mën si taataan xam-xam bu rafet boobu jërëjëf xalifaani amat mazayaw bal bal darat zawayaw xalifaani بل دار الزواياه عمت مزاياه بل دار الزواياه الفان الحمد لله هذا الشيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه الفان عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه الفان ربا بلا خلوة أصحابه علنا حتى استقاموا يا لله من حال الفان عمت مزاياه بل دارت زواياه عمد مزاياه بل دارت زواياه لخجا كودي همة أو بحال حاز ترك نعم المربي مهرب الحق يرضاه الفاني عمد مزاياه بل دارت زواياه محمد مزاياه بل دارت زواياه شيخ تيجان يسقي المريدين من كأس الوصول لإلى نحو المراد له ذي قد كان مأواه الفاني عمد مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه ولكن على الخلافة قد شاعت ويرا فتو أتاه ختم من الرحمن والجاه ولسان عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دار الزوايا وخجاك الله تمنني المختار مشتبلا بشيعة هذا ها يرضى بمسعى الفال عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه bal daara zawaya Cheikh Tidiane Fala yumathilu hu bahrun law madadun sahi walal jawdu haqqan min sakhaya alifani amad mazayahu mm. bal وجدا ولو حواجودا هو المعهود في طلب بحر لا أوعابه درا من عطاياه mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ku dégg loolu rek xel yépp dañuy dem ca bone borom bone kaara bi ñu di ñu di ci ziyaar bu baax a baax sëtëm yu baax yi di ci ziyaar bu baax a baax képp koo xam ne rek soppee xalifa Ababacar nga wala képp koo xam ne soppee Seydi Hadji Malick nga waaye dam way euh, ziyaar bi nag dama koy jël lépp rek jàlleel ko sama góor sama xarit di Mor Mansour ñu di ko ci ziyaar bu baax a baax a baax looloo tax maada tara min ri jaalillahi kul lihimi wa huwa almumitu وسليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا mbokk jullit yi mbokk taalibe yi loolu bu ngeen ko déggee rek xel yépp dañuy daal di dem kër Seydi Hadji Malick ñu amoon fi xew-xew bu mag boo xamante ni ah, waa communauté Casamance bi di waa Areska defoon nañ ko ñu def ko ah, ah, defoon ko muy xew-xew bu mag a mag a mag a mag mu doon gàmm seen gàmm gi nga xamante ne defoon nañ ko tubaarkàlla jullit yépp ñëw ànd ak ñoo euh, bokk gàmm gi euh, ñu am ci ligne bi nag ki nga xamante ni mooy Myriam mu fas yéene ñëw na ndax ku woote ñu wuy si la defe naa boo santee gërëm wàcc nga kon ñun bu def lu dul bàyyi leen ak Myriam seen mi nga xamante ni moom moo yor seen euh, porte parole fas yéene ñëw indi leen cant ak gërëm gi nga xamante ni jóge na ci waa Arescar miriem bismillah waa kañ jërëjëf yaay Dara maa ngi lay gërëm di la sant di la ziar bu baax di la remercier ci sa taxawaay alors euh, effectivement comme ni nga ko waxee suñu euh, conférence annuelle bu ñuy def chaque année moom la def defoon le premier juin wax dëgg yàlla jullit yépp wuy suñu ñu fas yéene rek tey au nom de toute la Casamance de la communauté casamançaise remercier leen alors waaye balaa ñuy commencer remerciement bi naa wax d'abord ne mu ngi sant yàlla bu baax sam borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi euh, ñuy euh, euh, remercier d'abord suñu kilifa yi mooy les doyens de la Casamance mooy doyen Moussa Sambo doyen Ibrahima Sonko doyen Soli doyen Souleymane Seydi doyen Sambo doyen Omar Soumaré doyen Kekoy Badji doyen amadu Diallo ak doyen Salomon Diédhiou ci seen taxawaay ni organise donc conférence bi ce jour-là du premier juin ñuy jàllale ngërëm aussi ci suñu grande sœur yi suñu kilifa jigéen ñi muy Ami Sambou mm-hmm. euh, di euh, Aïda Gina mm-hmm. Fatou Gueye mm-hmm. Adama Badji Tuuti Koli yaay daara. Mhm. ak euh, képp ku fa teew woon keroog ak ñu mënul ñëw yëpp fekkee. Mhm. Mhm. ah ñi naan après donc les doyens les sœurs de la Casamance. ñi jàllale ngërëm li ci euh, Serigne Daouda Sy muy defal conférence bi chaque année. mu jaral ko lu ne. bàyyi itam yëpp ñoo taxawuñu wax dëgg yàlla saa fait plus de quatre ans léegi ñu ngi koy def ñu di ko ñaanal yàlla. Mhm. yàlla bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg ànd ak wér ak wérle. amiin yaa rabbi ak ñi mi àndaloon Elimane Boubacar Dabo. Mhm. ak Serigne Omar Diété. Mhm. ñuy remercier nag délégation yu fa teew woon. Euh, di remercier bu baax ay dara bu Rhode Island. di remercier euh, Daïra Tijane euh, ci njiitalu Soxna Khady Diop. Dabaax. ñuy euh, remercier aussi daayira confédération Tidiane. Mhm. ci ngiitalu yaay daara. Mhm. ak présidente d'honneur Tidiane muy euh, soxna mu Oumy Sy Djamil. Mhm. soxna Safara dayre daayira soppe nabi euh, ci ngiitalu Ndey Fall Jules. ak Ndumbe Ba. ak Ndey Sali Diop. daayira Maam Jaara. soxna Moumi Sène. daayira Laay Mhm. ci njiitalu soxna Nabou Laye mhm. daayira Ñaseen ci euh, njiitali euh, soxna Fatou Sall su mhm. ak soxna Fatou Niass ñuy remercier bu baax tam di ko gërëm di ko sant muy soxna Awa Ndaw ñuy remercier daayira Xaadriyaay aussi ci njiitali soxna Mame Fatou Seck ñuy remercier délégation bu jógee aussi Staten Island muy euh, euh, ci njiitali euh, imaam Muntaga Sakho mhm. ak jigéeni Staten Island yëpp yu fa teew woon keroog mhm. ñuy remercier bu baax suñu góor di suñu càmmiñ di suñu jëkkër muy yaay daal daara dimbale ma jëkkëri Rama Diall oh sama papa Faly Ndiaye voilà Faly Ndiaye wax dëgg yàlla ku ñu ràññi la ci suñu conférence bi. ak sama taaw dina ci taxaw ak ñu mu àndal ñëpp. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. xaw ma turi ñëpp waaye xam naa ne seen daayira boobu ñëpp farlu nañu ci suñu affaire dinañu mhm. jàppale. ak taaw ah? Daouda Sarr ñuy remercier góor ji ah. taaw yaayu daara daaw Daouda Sarr wax nga dëgg daaw da saar moom itam suñu góor gu baax la. Mhm. ñu ngi koy remercier ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp yéen ñëpp. wax dëgg mhm. yàlla ñu ñëw ak ñu ñëwul. Mhm. xam naa ne xel yaa nga fa wan itte yi la rek. dëgg ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla mee ñu ñun ñëpp gudd fan ak wér gu yaram. dañu defaat ko déwén. dañ ko fi yàggaa des. amiin yaay daara ci sa taxawaay yooyu itam ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax. xam naa ne yow dootuñ lay wax ne sax yaay daara yaay a baax léegi jéeju lañ lay santale wala baañ incha allah waaw jërëjëf rek waaw incha allah <laughs> dafa am dafa am benn xew-xew bu ngeen di waajal euh, defe naa soxna Myriam waaw muy euh, journée Aline Sitoé Diatta euh, waaw dëgg la waaw ngeen di mhm. ko waajal defe naa le vingt le 24 août. incha allah le 24 août incha allah. yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin yaa rabbi amiin incha allah xam naa dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu. waaw incha allah incha allah incha allah le 24 août moom. Mhm. journée culture soirée culturelle Aline Sitoé Diatta. incha allah ñuy bëgg a wax lool di gëstu ci suñu marraine boobu di jigéen gu mag ñuy naan Aline Sitoé Diatta. Mhm. la résidente Casamance 16. ah léegi nag euh, wax dëgg yàlla moo waral guddi gi ñuy woo ñëpp góor ak jigéen. mag ak ndaw Casamance Sénégal na ñëpp jën taxaw. ñu mhm. màggal bés bi. waaw incha allah. waaw yal nañu ko fekkee jàmm ci darje Rasulullah waaw. waaw kon jërëjëf waay yaay euh, yooyu moo jóge woon ci fi nga xamante ni mooy waa Areska. waaw ah, ñu sant gërëm ku woote ñu wuy si la boo santee gërëm wàcc nga. dëgg la kon indi kàddu yooyu nag joxe ko ci turu waa Areska di sant mm-hmm. mbokku jullit yëpp ñi nga xamante ni teewoon nañ fa ñi bëggoon a ñëw te yàlla dogalu ko ak ñi amoon mm-hmm. yéen ñëw ñëpp rek gërëm nañ leen sant leen ñaana leen di ñaan yàlla may leen ñu fekk ko ay at yu bari te lépp luñ fa ne yàlla nañ ko jëriñoo ndax keroog euh, defe naa sëñ Daouda waxtaan na fa waxtaan woo xam ni enregistré nañ ko dinañ leen ko indil fii ci rajo bi tegal leen ko ngeen déglu ko ak waxtaan wu nga xamante ni tiir waxtaan waxtaanoon naka tamit samedi bi nu génn ci New Jersey moom it euh, dinañ ko ci waxtaan kon Myriam jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf jërëjëf yaay Daara ok Euh, ñu ngi ci ligne bi ba tey ak euh, soxna Maam Fa Wade Wele Euh, mu fas yéene ñëw nuyoo ndax euh, ba nu commencé émission bi léegi dégguñu ko euh, ndax dafa jàppoon xat waaye léegi pare na mi ngi ci ligne bi mu joxe ziyaaram ak nuyoo ñu daal di dem ci ki nga xamante ni nag mooy Alaaji Ibu Caam ñoom it ñu xam ni association Gambien bi woote woon nañu keroog le huit macha allah mbokk jullit yëpp ñëw wuy si leen moom it mu ñëw indil nu li nga xamante ni moom la ñu jëlale foofu muy cant ak ngërëm waaye bala maam fa waaw bala ma lay euh, jox euh, kii bi rek dafa am benn euh, kii wu 45 minutes boo xam ne rek dama koy dugal pour mbokku jullit yi. Bonjour Daouda. J'ai que tu te maries. Par la grâce de Dieu. As-tu fait le test de l'hépatite? Non, j'ai pas le temps. Il faut te faire tester. Tu n'es pas le seul maintenant. Oui, beaucoup parmi nous ont le virus sans le savoir. Si vous avez l'hépatite B, il y a un traitement disponible. Vous pouvez vous protéger, vous et votre famille, en prenant les trois doses du vaccin. Allez-y à African Service, qui est situé au 429 Ouest 127e rue, entre Convent et Amsterdam Avenue, pour un test gratuit. le bureau est ouvert de 9h matin à 5h le soir, du lundi au jeudi pour le test d'hépatite. kon niñ leen ko waxee woon léegi rek muy hépatite B bi nga xamante ni mm, yàlla na ci yàlla musal euh, bépp euh, doomu aadama muy feebar boo xam ni sares lay jàpp di ko euh, rongé ba xëy rek daal di lay daaneel ndax feebar la boo xam du manifesté wu doo ko yëg fenn kon képp koo xamante ni euh, euh, bëgg nga ci euh, xool ndax feebar jàngoro jooju dal na la wala dalu la da ngay daal di dem rek ba African Community Services ci 429 West 127e Street diggante Convent ak Amsterdam dina ubbi altine ba alxames diggante 9h ba 5h wala nga woo leen ci 212 222 38 82 kon képp koo xamante ni euh, yaa ngi fi ak sa njaboot demal nga xool loolu nga xamante ni mooy euh, euh, feebar boobu nga xamante ni du manifesté wu waaye dem xool sa bopp rek te doo fay dara ndax lépp loo fay def amul nga am kayit ak nga ñàkk am kayit boo ñëwee dina la toppatoo dinañu def li war lépp ci yow te doo fay dara kon na ñëpp dem euh, African Community Services seeti euh, seen yaram mbokk jullit yi mbokk taalibe yi euh, ci kaw loolu rek ñu ngeek sunu góor sunu xarit muy Alaaji Ibu Caam ni ma ko waxee léegi rek ku woote ñu wuy si la di nga sant di nga gërëm kon nag cant ak ngërëm du doy ñu bàyyi leen ak alaaji Ibu Càmm mu ñëw ci yéen ci cant ak ngërëm ga nga xamante ni indi na ko waaye balaa po bu rek maam fa looy nuyoo tey rajo daara ji bisimila euh, yaay daara waaw la béyka di wax onze billah mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu Amérique ak tout le monde entier ndax dañuy wax tout le monde entier ndax gis nañ ne léegi rajo daara ji dafa am yeneen feem yu bees yu bare bare bari yoo xam ni ñu ngi koy def di ko liggéey ci suuf rawatina euh, ñooñu di waa ak yi link ak rajo daara ji directement nga xam ne lépp loo xam ne réer na la ci sa diine wala ci sa émission boo demee foofu ca website ba danga ko fa fekk ak yeneen i liggéey yoo xam ne ñu ngi koy waaj a taxawal donc di wax euh, mbokk jullit yi rek euh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax rajo daara ji mu ngi leen di bégee bu baax a baax gis nañu ndimbal li gis nañu jàppale bi ah, ñuy wax rek ni seen émission la seen rajo la ñun defuñu lu dul toogal leen foofu di leen animeel lépp loo xam ni moo koy doxal di jóge ci ay boroom xam-xam di jóge ci gëstukat yi di jóge ci nitu diine yi dañ leen koy indil foofu di leen ko fa jàllaleel mhm. ngir jëmale l'islam bi kanam mhm. kon ma bàyyi auditeurs yi ak euh, Serigne Ibou Thiam mhm. mi nga xam ni ku ne xam na lu am solo li nga xam ne mu ngi koy dox ci communauté bi mhm. sëñ Ibou waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ah euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di leen baloo xaq yéen ñëpp di baal di baax ñëpp xaq di ñaan yàlla ñu ñëpp ñu tam mu taaw ñu boole ñu baal euh, li tax ma ñëw tey rek mooy dama wax ci tur yi mbootaay bi ñoo wooy United Gambian Association bi nekk ma jiite ko mhm. damay gërëm rek nit ñi ci euh, xew-xew bi nga xam ne xewoon na samedi bi passé di on the eight ci all muslim center fële nga xam ne fa lañ doon defee suñu islamic fundraising bi ci turu uh, organisation bi yëpp mhm. ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser ci jiital leen di paaseen ak ñi ci gannaawam yëpp yëpp kat suñu ba gaaba ak uh, mhm. uh, islamic committee bi nga xam ne ñoom ñoo ngànk affaire yi islam waxtu woo xam ne United Gambian um, woote nañ affaire yi islam mu jiite leen uh, di Moustapha Ly uh, Thierno Hafiz Diallo ak mm-hmm. imam Cheikh Ahmad Ndaw ak imam um, Ibrahima Tambidou mm-hmm. um, Khady Diop Dabakh mm-hmm. Diafat Dieng Diafa um, Ndeye Fatou Diagne moom nga gàmm sax wax dëgg yàlla waaye terewut def na ci liggéey bu rëy ci diggante bi mu fa nekkee ak xaritam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi Mbassi Fati Khady Diop Dabakh Euh, Mbaxe Ñang ak Fat Ndiaye Maodo ak euh, Mariama Sané mhm. Ndey Sukay Ndiaye Awa Fall Diallo Ndey Antimati Diop mhm. ak waaw ñooñu daal ñooñu nga xam ne ñoom ñoom ñànk mbiram islam mhm. ñu ma li ma wax nag maa ngi ko wax ci turi ñii ñëpp mboolem ko xam ne ñëwoon nga fekk le fekkee le suñu ci um, këri diine yi yëpp Euh, maa ngi ci jiital kër Sëñ Touba jiital leen mu jiite woon leen di euh, mm, Alaaji Sëriñ Lo mm. ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci gannaaw Mika kon tudd naa euh, xadara murid yi yëpp mm-hmm. mm, beneen beneen bi ci topp mooy daayira Maam Jaara jiital leen di aji moomi seen ak mboolem ñu nekk ci gannaawam mm-hmm. yaa maami daara ñëw na fa teel xam ngeen ne boobu xew yu bëree bëri amoon am na ñoo xam ne dañ jaar fii def lañoo ñoo def jaar fële def la ñoo def pour gën a ci mm-hmm. yoon waaye ñetti xew yu mag ñoo amoon yoo xam ne ñii ñëpp ci lañ jaabante waaye amul kenn koo xam ne kii ñëwut ci xadda ci comité africain yi nga xam ne moo ne ñoo nekk fii mm-hmm. moo xam tukulóor yi la moo xam joolaa yi la moo xam ah, ah, waa Casamance la moo mm-hmm. xam ak ñu mën a de ñëpp ñëw nañ xadara Malikia bi jiite leen di Alaaji Jibril Gueye mi nga xam ne moom ci ñi jagleeloon guddi gi ci la bokk daanaka waxtaan wi ci yi fa am solo lu ci ëpp moom moom moo ko def moom it moo jiite xadara malika bi yëpp a malikiya bi yëpp su ma ko tuddee kon tudd naa ñi ci des yëpp ak ci président bi ta Alaaji Taala Njaay Islam ba Alaaji Ibrahima Niass président bi ñëw na di Jim Guèye ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndat ñoom ñëpp gis nañ leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant mhm. bu jigéen jigéen ña ah, Aji Faat Niass ñëw na ak Aji ñoom itamit gis nañ ñëpp waa Kër Baye Khalifa tamit gis nañ leen ñëpp ñoom ñëpp gis nañ leen mm-hmm. laayeen yi gis nañ ñëpp ci euh, turi daam euh, daam Diop laay ak euh, Sénégalais association bi ci njiitali Alaaji Sëñ Pape Dramé ñoom itamit ñëw nañ gis nañ ñëpp léegi daal ñu ngi tudd ak ñu ngi tudd ñëpp réew mi yëpp ñëw nañ dëkk bi yëpp ñëw nañ ñëpp ñëw nañ ñu leen di gërëm di leen sant yaay daal nag man ñu ngi maa laa sant mm-hmm. di la gërëm ci turu ñi ma tudd ñi ñëpp nga xam ne ñoo ngànk Mm-hmm. United Gambian Association ñu ngi la gërëm bu baax a baax a baax sa euh, ngërmande am na fu mu dalee waaye amu fu mu yem su ma la gërëm su ma la waxee nag wax naa ci turi ñi ma la wax nii ñëpp ñëpp la gërëm ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla euh, ñu fekkee déwén nag jàmm be balaa déwén kenn ci ñu mboole mbootaal yi fi ne kenn pël bu ci nekk na jekk ba di soxla fundraising su ko defee ñun ñëpp ñu bokk li doon fexe pour ci fundraising ñun ñëpp ñu ko Mhm. ñun ñoom ñoo bokk ànd di liggéey mhm. yaay daal daal loolu moo doon wax ji ci gàttal mhm. ñu ngi laa gërëm di leen sant di nuyu soxna Faa di leen ñaanal yàlla mu àggal radio bi foo xam ne fii fara suñ njort àggul sax yàlla rombale ko si suñ njort ci barke alquran barke yonent bi gërëm nañ la daal bu baax di leen sant ñu ngi alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah maam Faa waaw jërëjëf sëñ Ibou wax ji rafet na lool Mhm. Euh, ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm euh, suñu présidente Khady Diop Dabakh mhm. gis nañu coono yi nga xam ni daj na ko ci mëtale rek mhm. jataay yépp yal na ko fi yàlla bàyyi te dooleel ko waaye sama yaay dafa waroon dugg tey pour euh, wax ak ñun ci soose waaye ñëwul xawma ma nag lu tax ñëwul mais dama ne ko woon boo ñëwee boo waxee ci soose ba pare man danaa ko tekki ci joolaa waaye comme ñëwul dañ koy bàyyi rek ba àllarba bii di ñëw ndax fokk mu wax ci soose rek ma tekki ko ci joolaa tey maa waroon remplacer Yaama Saane waaye comme sama yaay euh, duggul rek euh, dañ koy bàyyi rek ba àllarba bi di ñëw euh, maam fa looy dolli rek ci waaw ci programme bi ñuy fàttali rek ne mm-hmm. comme ni ko sëtu Maodo bi ci réew mi di defee di mm-hmm. sëñ Ahmed si mm-hmm. yit fa Euh, tàllal xadara yëpp fii ci état yi ci Amérique yëpp ñuy mhm. fàttali ne euh, ñu ngi préparé gàmmu kenn Kentucky mhm. Kentucky dëkk boobu nga xam ni euh, li ñuy wax daal ni fa maamam tegoon tànkam rek ruq bu ne rek dugg na fa rek am xadara bu fa teg rek maam faa tegal sa baaraam ma ñëw waaw ألفان عمت ما yaay daara waaw bisimilah bisimilah. ñëw ah, dafa mel ni da am problème technique. waaw waaw dafa am lu ma doon essayé mais jàllul mais continuer àggaleel àggaleel ba. waaw ñi fàttali mbokku jullit yi rek ne euh, gàmmu Kentucky incha allah le 15 la. Mhm. Euh, ñu koy fàttali rek ne ku fa mën a jote. Mhm. ñu koy yëgal ñëpp nag ñu ngi koy rëgg yëgal xadara yi ci Amérique yëpp. Mhm. comme niñ koy defee rek saa su ne dëkk bu xewle ñëpp dem taxaw fa. taxawal fa xadara yëpp. Euh, ñu ngi ciy woo ñëpp di ci di ci sant nag président ba foofu di ci sant nag euh, Papa njaay Guèye mhm. euh, sunu xarit sunu soppe bi nekkoon nag ñun fii Cheikh Tidiane Mbaye ñoom ñoo xewle ñu ciy woo ñëpp nag di ci woo américain yëpp ñi ci profité rek di ci ziar suñu gan googu Idrissa Gueye mhm. ku ne xam na ni muy def tant rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. boo toogee di ko déglu balay tànt ba di jeex ah la yëkkati woon da nga am lu la neex lool lool lool lool mhm. fàttali mbokk jullit yi ne gàmm googu moom moo koy taxawee incha allah. incha allah maam fa macha allah matale na jotale na waaye ñuy fàttali rek ba tey nii ñu ngi waajal fundraising bu mag boo xamante ni mi ngi am le 10 juillet fu muy awee ca Zawiya Seydi Hadj Malick at mu jot ñaari euh, fundraising la ñuy def. kon euh, bi ñuy def euh, mois de juillet mooy bi euh, topp ci bii ñu doon def décembre muy kon décembre la ñuy def ak juillet kon bii di ñëw incha allah ñu ngi koy def le 10 juillet information bi mu ngi jóge ci Harlem Islamic communauté Center muy zawiye waa kër zawiye Seydi Hadj Malick ci 108 East 128 East Street diggante parc ak Lexington fundraising bi nag maam fa ñu ngi koy defee ca place kër ga ca zawiya ba pour mbokk julli di gis euh, liggéey bi fu mu toll ak euh, li nit ñi doon dugal ci seen doon joxe seen xaalis fan lañ ko def ku ñëw incha allah sa xol dana sedd ndax di nga xam ni lépp lu nit joxe rek euh, agsi na te dugg na ca ci néegu yàlla bi maam fa waaw yaay daara li ma ci dolli rek bu ma ci wax sax damay am kontante gu yaatoo yaatoo yaatu mhm. ndax ku ñëw ci place boobu rek Mm-hmm. xool liggéey bi fi mu toll ak béréb boobu na mu meloon bañ koy jël mm-hmm. nga xam ni kenn du waa Amérique mm-hmm. rawatina waa New York am ni ay jàmbaar lañu lool la projet boo xam ni ëpp na deux millions de dollars ñu yëkkati seen dërëm ak seen tànk ak seen fistin xeebu ñu dara ku ne jóg daw di ko wuti ci sa ay nit ci sa ay mbokk ci sa ay xarit ah ñu leen di gërëm di leen sant nag di leen joxaat nag beneen beneen beneen beneen rendez comme niñ ko daan defee rek ku nekk fa nga xam mën ko fa wute ji nga dem wute ji ko fa bu ñu dix xee bu ñu vingt xee bu ñu deux cent xee bu ñu thousand dollars ndax gis nañ ne kat mbokk yi liggéey bi seen liggéeyu bopp la ñoom comprendre nañu ku ne xam nga la nga fay def investissement ba fa mu jëm loolu rek euh, doy na junju euh, ñi wax rek ni ñi ngi lancé waat appel mbokk jullit ci nekk ci Amérique yëpp laay wax ndax euh, defe naa ni fii ci Amérique amatuñu xàjji ak seen kenn ku jóg rek ñëpp dëbbale la euh, gis nga li fi jaar léegi ñu ci profité di ci ziar suñu xarit Béthio Laye di ci ziar suñoo xarit euh, sëriñ di Baslaay mhm. leen ndokkeel bu baax a baax mhm. kon ñi wax ne néegu yàlla boobu ku ne xam nga ni néegu yàlla la néegu suñu borom bi la mhm. ku ne la coy def xam nga fa mu jëm euh, ñu leen di jox rendez la le 10 juillet le 10 boobu nag bëgg nañu mbokk jullit yi préparé ko nag préparation bu am solo nga xam ne bii fii liggéey bi toll bu ñu defee fundraising boobu nañu mën a def ay jéego yu bare bare bare bare yoo xam ne day jëmale place boobu kanam incha allah euh, Mm-hmm. Euh, dafa am euh, xew-xew boo xamante ni dafa xewoon keroog euh, le huit incha allah muy ñi nga xamante ne ñooy sunu mbokku gambien yi bi ñu wootee tamit defe naa waa New Jersey yi tamit woote woon nañu keroog. Mm-hmm. woote bi ñu woote woon du woote lenn lu dul yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam borom barrière or ba ca Medinatul Munawwar mm-hmm. ka doon def waxtaan wi di oustaz Baytiir Laay ñëw waxtaan fa waxtaan woo xamante ni macha allah waxtaan woowu maam fa fokk dinañ ko indi tegal ko mbokku jullit yi ci rajo bi. ñu mhm. déglu ko ndax keroog képp ku dem ñu jësi sa xol sedd na dégle jële nga fa loo xamante ni bi nga ñëwee xoolaat nga sa bopp euh, nattaat nga sa bopp. delloowaat nga sa bopp ci euh, sunu boroom xam ni euh, la nga fa jëlee njëriñi kese la. Mhm. ña ko woote woon nag di soxna Aminata jal ànd ko ak. Euh, ki nga xamante ni mooy euh, borom këram euh, di jibi tax ànd ka ak ñoom bàjjan ñoom xadijatu ñoom libaas ñoom ñëpp macha allah ñu ànd ko jullit yëpp ñëw wuy leen ñu taabal jana ki nga xamante ni mooy oustaz baytiir toog fa surtout rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di moom Chérif Mamadou Lamine Aydara sama doom taaral jataay ba ànd ko ak sunu consul bu baax bi nga xamante ni xeebalul kenn bisam. Mm-hmm. waaw Sidi. xeebalul kenn bisam. wallaay. ñàkkul euh, fonk na ñëpp. Mm-hmm. jox na ñëpp seen cër. ku si ne rek xam na la nga yellool mu jox la ko ñu di ko gërëm bu baax a baax di ko sant di ko ñaanal wér di ñaan yàlla yokk garaatam fii mu toll yàlla na ko dépassé euh, ba mm-hmm. nga xamante ni dana romb fii. di ko ñaanal bu baax a baax a baax. ndax euh, mi ngi wane exemple. Mm-hmm. waaw wax exemple bu baax a baax mi ngi koy wane. taaraloon na bis ba ànd ko ak sama góor Talla Mbaye ak euh, waa consulat ba yëpp kon ñu di leen gërëm bu baax a baax di leen sant ci duru turu daayira xubbu taxaa bu New Jersey waaye tamit muntaxaas euh, muntaxaas saxoo taaraloon na jataay ba ak mm-hmm. sunu imam imam Abdoulaye Diop ak Vieux waaye nag ñu ni ñu ngi jël cant li ak ngërëm li ak lépp di ko teg ci loxo euh, ci rajo daara ji ñu gërëmal leen mbokku jullit yëpp santal leen mbokku jullit yëpp ñu ñëwoon ak ña ñëwul ak ña bëggoon a ñëw te yàlla dogalu ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, di leen sant euh, di gërëm bu baax a baax tamit ki nga xamante ni ñoom la ñu jagleeloon guddi gi maam fa mm-hmm. muy ku ñuy wax madam doy Euh, ñu gën ko xam ci may Maymuna Samb muy euh, euh, ndono mus maam Moussa Gueye Bakar Wali mu ñëw fa ci ñëw bu rafet tubarkalla kaar ak mm-hmm. madame Ndaw ñu gën ko xam ci May sama Samake ñëw ñëw bu rafet nday Ndey Faatu Jaañ ca North Caroline ñëw tamit ñëw bu rafet ñu di leen gërëm waa daayira bu taxa di leen gërëm di leen sant di leen eh, ñaanal bu baax a baax ñuy gërëm tamit di sant seen parrain yi yi nga xamante ni moo doon eh, Seydou juuf ci New Jersey Ibrahima Sow New Jersey ak sama góor sama xarit di El Hadji Sadiq Ngom ñu gën ko xam ci Ngomes yaayi daara ñu di ko mhm. gërëm bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax eh, di leen sant di gërëm mbokk jullit yépp nga xamante ni teewoon nan fa ñuy gërëm waa soppey na bi di gërëm daayira tiijaan bi di gërëm daayira laayeen daayira ñaseen daa daayira nguraan ñëpp teewoon nan fa macha allah nee na ñu bëgguñu lim ndax bu ñu limee dañuy juum waaye gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp ñaanal nañu ñëpp di ñaan képp koo xamante ñëw nga aajo boo fa indi woon yal na ko suñu boroom faj bi jaay na bi Moustapha képp ku fa ñëw lépp loo fa taataan yal na nga ko jëriñoo barke barakatu Euh, a jour nee nañ ñu ngi gërëm maami daara bu baax a baax di gërëm soxna umu bu baax a baax di gërëm soxna safratal makki bu baax a baax di gërëm délégation yi fa ñëwoon yépp ñu ngi leen di gërëm di gërëm itam sama yaay bu bopp Ah, di Ndeye Rama jal àndoon ak soxna Ndeye Sali Diop ak Mami jóob Mami juuf ñu di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di beral ngërëm tamit eh, képp koo xamante ni ñëwoon nga jóge ci daayira bi ku ci mel na eh, Babacar Ndaw ak eh, taawu yaay daara ñu ngi leen di gërëm ñoom it bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal waaye maam fa waaw dañuy wax ni ngërëm li lépp nag dañ koy teg ci loxo Euh, euh, ki nga xamante ni mooy oustaz Vieux lay mm-hmm. waaw ndax vie oustaz lay bu ñu ko gërëmee gërëm nañu soxna Ndumbe ba waa waa soppey na bi gërëm nañu euh, soxna nday Fall Jules gërëm nañ leen ñoom ñëpp macha allah mm-hmm. nee nañu nag gërëm leeg cant yëpp dañ koy dox teg ci loxo Vieux lay mu gërëmal leen ñëpp santal leen ñëpp waaye gën leen dolli gërëm bu baax a baax a baax oustaz Baytiir kontaan nañu ci oustaz Baytiir fu kontaan di yem fa mu am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem gërëm nañu jullit yëpp sant nañu ñëpp euh, ñu am rek benn précision boo xamante ni maam fa dañ koy euh, indi euh, muy communauté casamance bi dañu joxe léegi ni areska mais du areska communauté casamance bi yëpp ñoo taxawaloon guddi googu nga xamante ni mooy mm-hmm. gàmm gi ñu defoon le premier juin ñu di ci gërëm mbokk julli yëpp di leen ci sant di gërëm ñëpp ña fa woon gërëm ñëpp sant ñëpp du Areska communauté Casamance bi la kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Mame Fall looy bu amee ci dolli wala ñuy jàll ci publicité yi. waaw mën nañu jàll ci publicité yi comme ni nga waxee. Uh-huh. jotale na motale na. macha allah kon tegal foofu tegal foofu sa baaraam ñu ñëw. mbokk taalibe yi bu ngeen déggee loolu rek xel yépp dañuy daal di dem ba fa nga xamante ni mooy euh, si pharmacie maam fa si fi pharmacie nag daal di lënkoog association sénégalais bi di waa ASA ñuy liggéey liggéey bu am solo ci réew mi di dimbali képp koo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi boo amee sa ordonnance bëgg ko jot nu mu gën a gaawee jokkoo ak waa bu jot sa garab nu mu gën a gaawee jokkoo ak waa si pharmacie su fekkee da nga bëgg ñu seetal sa tension demal si pharmacie su fekkee da nga bëgg ñu xoolal la sa suukar ndax sa diabète yéeg na wala yéegul demal euh, si pharmacie su fekkente ni tamit da nga déposer sa ordonnance bëgg ko jot te bëgguloo dem mën na la ko délivrer indi la ko ba si sa kër te doo fay dara bépp xeetu médicament boo xamante ne am nga ko boo demee ci si pharmacie dinañu jëflante ak yow ñu ni tamit su fekkee da nga nekk ci sa docteur mu bindal la ordonnance te bëgguloo dem ba foofu joxe ko fa sa sa docteur mën na la ko defal prescription électronique nga xam ne day dem directement ca pharmacie ba ñu toppatool la ko nga mën ko jël si wala ñu mën la ko délivrer si pharmacie daal mooy dimbali askan ndimbal askan wi ah, ñuy tamit ñuy wax tamit ni su fekkente ni danga am uh, xeetu lu mel na uh, ay pommade ay massage uh, ak yu ñuy seete tension yu ñuy seete diabète xeet bépp xëpp machine bu mu mënti doon boo jokkee ak si pharmacie mën nga ko fay fii ka nga bëgg mu jël ko ca Sénégal mu jël ko foofu ñu ni si pharmacie nag moo fiy def loo xamante ni kenn defu ko fi muy xeetu làkk boo mënti dégg rek soo ñëwee dinañu wax ak yow mu mel na dinañu làkk français dinañu wax espagnol dinañu wax wolof dinañu wax arabe kon euh, si pharmacie daal defe naa ni moo génne na fi bépp xeetu jaaxle bu jëmoon ci lu jëm ci wàllu farmasi euh, euh, ñu ni nag koo bëgg jokkoog waa si pharmacie da ngay woo Ousmane Faye wala Issa ci 212 665 88 8 0 wala nga dem ba 215 West 116 Street diggante 7 ak 8 wala bu fekkee ca Sénégal la dangay dem ba 10 à cité Soprim ca Patte d'Oie euh, boo demee nga wala nga woote ci 33 835 06 86 kon si pharmacie daal génne na fi bépp xeetu jàqare boo xamante ni daan nit ñi daan nañu ko am si jot seen garab yi wala yu xeet yu demee noonu ñu ngi ci ligne bi ak euh, sama yaay soxna Khady Diop Dabakh muy indil ñu rek euh, euh, mottali boo xamante ni laaj bi Ibou Thiam jàllale na ko waaye dañuy wax cant ak ngërëm du mat yaay booy bismillah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum yaay daara waaleykum salaam soxna Khady maam fa ñu ngi ziar ñu leen a ziar bu baax yàlla yàlla nangu kazalika ñu ngi ñëw nag di gërëm di sant rek Ibou Thiam nag moom dafa wax ba pare ne ma moom daayira tijaan bi daal moom du ci laal dara mm-hmm. parce que mun naa am bu ci laalee dara rek bàyyee na ma lépp léegi ñu ngi mu ne ñu ngi gërëm li ko commencé ca imaam Dieye mm-hmm. imaam Dieye nga xam ne boo moo ñëw keroog yiite daayira tijaan bi nekkoon si guest speaker def fa fundraise bu am solo ànd ak Papa Talla Ndiaye di président daayira bi ñu leen a gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal ànd ak Abdou Aziz Diallo ànd ak Alaaji Mbay Ndiaye Maodo ñoom ñëppoon fa woon ñu leen a gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal seen taxawaay rafet na ci ñu leen a ñaanal yal na yàlla fay leen amiin ñu jógee ci loolu nag ñu ñëw ci suñ sëriñ si di soxna Umu si Jamil ak soxna Saafara Taal ànd ak délégation bu am solo bu am solo bu am solo ñu leen a bu baax di leen sant di leen ñaanal yal na yàlla digëral seen taxawaay ñu ànd akoog soxna Faat Diop ànd akoog Faat Bintu Samba soxna Ayda Lo soxna Faat Ndiaye Diop suma jabar soxna Mor Mbuub bàyyi wuñ kenn ñoom ñëpp ñëwoon nañ ñuy gërëm ñëpp di leen sant di leen ñaanal soppey na bi it ñëw nañ ànd kook Ndey Fall Zil ak soxna Xadi Ndiaye ak maami daara ñoom ñëpp ñëwoon nañ ñoom soxna Momy Sène ñu répétaat liñ waxoon yëpp la waxaat rek gërëm nañ leen sant nañ leen ñoom ñëpp ñëw nañ ñoom yaayi daara bàyyi seen soxla ittee yëpp ñoom itamit nekk ci yoon wi réer ñaari waxtu waaye lu mu yàgga yàgga ñu ne dinañ ñëw ba ak ñu gis leen ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yal na yàlla jàppandal lépp barke Seydina Mohamed amiin yaa rabbal alamin jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu gërëm ña fa teewoon ñëpp nag bàyyiwuñ kenn ñi buggoon a ñëwoon ak ñi buggoon a te mënuñoo ak si gis nañ seen ndimbal yal na yàlla fay leen. kon kon jo jo soose bi dañ koy bàyyi ba àllarba ah incha allah. incha allah waaw jërëjëf ci sàkk mu laa wax. wax ji jotale na matale na macha allah <laughs> ah, lépp loo xamante ni ah, manqué na rek si ñun la waaye yéen matale ngeen ñu leen di gërëm bu baax baax ah, di leen sant di leen ñaanal maam fa allo. waaw bismillah. waaw maam fa dañuy dem rek ba Sahel international bu ñu demee Sahel international ku ñu fay fekk fekk fi Jibi Ndiaye mi nga xamante ni mooy docteuru euh, rajo yi di euh, euh, dimbali rajo yi bu baax a baax a baax a baax xam jàngoro rajo yi te di ko faj te boolewu ci lenn. yaay Daara. Mm-hmm. kooku defe naa mooy sponsor officiel bu rajo Daara l'Islam. maa la ko wax jëkk ci te ba léegi yox yoxu ci delluwu ci gannaaw di jàppale rajo bi bu baax a baax a baax a baax. Euh, Sahel international foofu ku fa dem di nga fa fekk en di nga fa fekk détail fa muy 100 pour cent human hair di nga fa fekk tamit perruque yi GSM téléphone yi accessoire téléphone yi bu dee luy taaral jigéen mag nga fa imaana nga fa fashion fair a nga fa ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yuy taaral jigéen rek la ñu ni jibi ku fa bëgg dem da ngay dem ba 12 34 west 31e street essor bi di numéro cinq ci diggante Fifth ak Broadway wala nga woo Jibi Ndiaye mi nga xamante ni mooy docteur rajo yi ci 718 924 64 20 wala 212 564 25 four uh, five uh, ñu ni uh, maam fa ji bi yamul foofu ndax nee na képp koo xam ne yaa ngi ci àll bi bëgg taaral sa bitig jokkool ak moom dina la yónnee bagaas yi ca anam wu gën a rafet nga yokk sa bitig taar yamul foofu ba tey mu ni képp koo xamante ni yaa ngi tukki boo bëggee yóbbal Euh, euh, bëgg sëriñ boo xam ne boo àggee njaboot gi kontaan demal ba Sahel International nga fekk fa Jibi Ndiaye loo euh, maam Fall looy dollu ci Jibi. xanaa di leen wax ni Jibi Ndiaye produit yu baax yu am solo la yor. Mhm. yoo xam ne ay prix nag amul benn compétition. Mhm. bëgg produit bu baax a baax a baax bu professionnel. Mhm. boo demee ca place am boobu da nga fa gis lu jéggi dayoo. loo xam ne lii sa bëgg-bëgg fu mu mën a toll rek da ko fa fekk. ca produit am yooyu. kon ñuy wax maam fa dañuy jógee ci jibi rek dañuy demaat ci suñu beneen beneen sponsor koo xamante ni ku ñu jàppale la muy Seydina Senghor bureau Modou Lo office nekk ci twenty euh, twenty four twenty four seventy eight bi di ci et avenue nga xamante ni képp koo xamante ni def nga accident wala ngay liggéey fa ngay liggéeyee ñu bëgg laa néewal doole wala ñu bëgg laa nax boo demee ba miro Modou Lo office di nga fa fekk euh, Seydina Senghor muy Seydi Aboubacar mu jàppale la ci bépp xeet boo xamante ni yaa ngi koy jànkonteel boo fa ñëwee rek dina la ci dimbali ci an na mu gën a rafete ñuy wax ni képp koo xamee bëgg nga ko ak euh, Seydina mën nga ko woo ci 212 426 8877 wala nga woo ko ci 212 439 80 4 Euh, Seven kon maam fa looy wax ci Seydina. yaay daaxa li ma ci dolli rek mooy Seydina Senghor gëstu bi nga xam ne am na solo mu koy def lool. Mhm. lépp loo xam ne lii mooy njariñu immigré yi fii ci dëkk bi. Mhm. lu jëm ci code lu jëm ci loi. lu mhm. jëm ci ay loi yu bees. lu jëm ci intérêt euh, immigré yi. Seydina Senghor daf koy gëstu. di ko càmbar jox ko sénégalais yi for free. boo ñëwee lépp loo bëgg ci diggante kër low income ay documents yoo soxla. loo war a wut application boo demee di ko fa fekk kon nag loolu moom lu am solo la loo xam ni nii Seydina mi ngi koy taxawal communauté bi te lépp daf koy def rek ngir fisabilillah ngir communauté bi rawatina communauté sénégalaise bi. kon jërëjëf Seydina euh, waaye fa dafa am koo xamante ne nag euh, mënuñu bañ a ñëw ci moom. muy kii sunu sponsor boo xamante ni day jàppale rajo daara rajo bu baax a baax muy da Dabakh Boutique Solution. da Dabakh boutique solution maam faa ku fa dem koo fay fekk. da ah, Dabakh boutique solution nag mooy li nga xam ne moo dalee ca 8 avenue. 8 mhm. avenue between 148 149. 27 98. Dabakh boutique solution nag boo ñëwee. Mhm. ba xool magasin bi. Mhm. di nga xam ni fii professionnel moo fi nekk. li ci ay produits de beauté. li ci beauty supply store li ci karaw. li ci maquillage mhm. lépp loo xam ne li soxla nga ko mhm. ngir euh, mbiru jigéen mhm. ak yeneen i mbir yoo xam ne nag sax mënuñu ko wax ci rajo bi lu soxal communauté bi boo ñëwee di ko fekk ci Dabakh Boutique Solution Dabakh Boutique Solution nag yaa ngi fay fekk daaw de Sarr ki ñuy wax taawu yaay daara boo ñëwee dana la teeru ci anam yu am solo génne la lépp loo xam ne li soxla nga ko ci ay prix yoo xam ni prix yu déggi dayoo la waaw waaye euh, yamul foofu ba tey ndax nee na képp koo xamee am nga xéewal gooy yónni yóbbante jaboot gi rek boo jokkoo ak taawu yaay dara dina la ko yónneel ci anam bu gën a rafet bu gën a euh, yomb lool te am na noo xam ni sax boo fa àggee man na doo fay dara waaye euh, ta fa ñu di ci yokk rek njoganalu alxames bi pour ñu yi di ko bañ a fàtte alxames bu ndot bu taw bu ñu jullee tàkkusaan ba pare rek ku xiif rek demal Touba boutique euh, demal Dabakh euh, boutique solution di nga fa fekk euh, taawu yaayu daara nga njoganiku ba suur amaan na sox boo fa jógee reer doot ci am yoon waaye faa am na ku dendal de waaw kooku mu dendal yaay daara nag mhm. mooy prestige multimédia mhm. prestige multimédia mhm. kooku mooy Khalifa Ndiaye Khalifa Ndiaye nag mooy professionnel bi nga xam ne bii lépp loo xam ni téléphone électronique la di computer di wireless di matériel boo soxla wala di am njàqare ci sa cellphone nu mu war a doxee boo yeggee foofu dina la ko defaral Khalifa Ndiaye nag ci ay minutes dina la defal loo xam ne lii liggéey bu am solo la ndax da koy càmbar ba xam fi jàngoro bi nekk ci appareil bi mhm. mu génneel la ko mhm. Khalifa Ndiaye nag mooy professionnel bi nga xam ne bii ah lépp loo xam ne ci wireless ak computer mhm. boo fa duggee sa xol dina sedd kon ku bëgg jot euh, euh, euh, dem Prestige multimédia rek da ngay dem ba fi nga xamante mooy 2798 8 avenue wala nga woo ko ci diggante 148 149 wala nga woote ci 646 cent 354 84 02 boo demee boo fa fekkee euh, euh, xalifa ak boo ko fa fekkul yëpp mareem dana la recevoir dana la mm. toppatoo ànd ko ak teey ak yar ak euh, teggin maam fa dañuy dem nag ci suñu beneen sponsor koo xamante ni Abdou Aziz Ndaw Ndukumaan maam fa nga xamante ne Abdou Aziz Ndaw Ndukumaan lépp loo xamante ni moo jëm ci yónnee bagage kenn mënu ko ci muy conteneur ñuy taxawal conteneur bi nga xamante ni jóge woon na Sénégal jox na ko seen borom ba macha allah ñëpp jot na du seen bagage am nañu benn boo xamante ni tamit altine incha allah lañ koy tëj mu war fi jóge war dem Sénégal muy li nga xamante ni mooy conteneur wu Euh, weeru koor ñëpp mm. ñëpp di ko xaar am na tamit buy jóge Sénégal boo xamante ni incha allah war na fa jóge euh, ñëw fii ñu nga ca léegi dinañ ko tëj incha allah ragal naa ni le 10 lañ ko waroon a tëj kon tëj nañ ko ba pare xam naa mi ngi ci yoon wi incha allah waaye Abdou Aziz Ndaw dafa am leneen lu mu ci yokk maam fa dafa am benn oto boo xamante ni oto bi 206 euh, Nissan euh, Sentrol euh, euh, muy ñeenti cylindre di oto bu bees tàq am climatisation di automatique lépp normal lépp parfait oto baa nga ca Sénégal àgg na Sénégal génne nañ ko dédouané nañ ko ba pare képp koo xamante ni bëgg nga oto bi rek wala Euh, Abdou Aziz Ndaw euh, ci numéro am nga jokkoo ak moom mu mën waxtaan ak yow ci euh, téléphone ci oto boobu nga xamante ni ma nga ca Sénégal dédouané nan ko oto bu baax la état bu baax boo jokkoo ak ndukumaan rek incha allah dina la ci jox leeral yu gën a leer bu dee ca Sénégal nag danga nga bëgg jokkoo ka ca Sénégal da ngay woo Moussa Thioy ci 77 510 20 10 Maam Fa jërëjëf xanaa ñuy wax Abdou Aziz jërëjëf rek ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne mhm. mi ngi koy def ci conteneur yi mhm. jële ko fii yóbbu ko Sénégal mhm. kazalika jële ko Sénégal indi ko fii képp koo xam ne am na sa produit mu jaaxal la ak quantité nu mu mën a toll boo tolloo Sénégal bëgg koo indi fii boo jokkoo ak Abdou Aziz Ndaw Ndukumaan dina la ko indil incha allah ah, mu yokk ci rek ni incha allah ah, conteneur koor bi Ah, altine lañ koy tëj képp koo xamante ni bëgg nga ci am lu gën a rey rek wooru Abdou Aziz Ndaw ndukkumaan si muy sunu sponsor yi nga xamante ne ñooy jàppale ah, rajo daara ji bu baax a baax a baax ñuy fàttali mbokk julli ne confédération Tidiane bi seen conférence bu mag bi nga xam ne dañ koy def ah, annuellement dina am le quatre août incha allah dinañ ci ñëw mu gën a yaatu waa daayira Akhlu Cheikh ñoo ko ayee at mi ki leen koy defal nag ni muy Serigne Adi Niass Serigne Adi Niass nag ñëpp xam ka ci fatwa ci Walfajiri mu di ci waxtaan waxtaan yu dugg ci xool yu am solo kon kooku te ñëwoon na fi def si kafi kon buy ñëwaat ñëpp dañ koy waajal préparé ko muy waa daayira axlu euh, cheikh ñuy fàttali rek euh, ni cotisation yi 50 dollars yi joxe nañu carnet yi maa ngi carnet képp koo xam bëgg nga barkeelu ci confédération bi rek euh, ci loolu nga xam ne journée boobu nga xam ni journée cheikh bi nga xam ne ñu ngi koy waajal mën nga ma woo jokkoog ma maa ngi carnet am na ñeneen yu yor dinaa ci ñëw ak yéen incha allah ñuy waajal tamit anniversaire Chérif Ousseynou Laye le euh, premier juillet incha allah maam fa ñu ñëw ak yéen rek ci heure julli yi mm-hmm. waaw ndax euh, euh, mbokk jullit yaa ngi woote di ko fàttali ñuy wax ni rek suba incha allah fukki fan ak ñett ci weer wi ñu ñuy fàttali nag ñu ngi ci weeru weeru Shaban weeru Shaban nag di weer woo xamante ni weer wu baax woor la naka mbokk jullit yëpp bàyyi xel lu ci waay mën woor rek nga woor ko ndax weer wi weeru ngëneel la weer wu baax a baax a baax la kon ñu di ci fàttali ñu koy fàttali jullit yëpp rek ñuy wax ni fajar gi mi ngi ci 3:45 ñu ni jant baa ngi fenk 5:24 ñu ngi julli tisbaar 12:57 di julli takkusaan 4:57 di julli gee di julli timis 8:29 di julli geewee ñu baamtuwaat ko ñu ni fajar ñu ngi julli fajar 3 heures moins 4 euh, heures moins quart ñuy julli euh, jant baa ngi fenk 5 heures 24 ñuy julli tisbaar euh, midi 12 57 muy midi 57 bu midi desee ñetti minutes une heure desee ñetti minutes ñu ngi ñu ngi julli tàkkusaan 4 heures 57 di julli timis 8 heures 59 di julli géewe 10 heures 08 dix heures bu tegee juróom-ñetti minutes ñu bamtuwaat ko fajar gi mi ngi ci trois heures quarante cinq euh, jant baa ngi fenk cinq heures vingt quatre ñu ngi julli euh, tisbaar euh, twelve douze heures cinquante sept di julli takkusaan quatre heures cinquante sept di julli timis huit heures vingt neuf di julli geewe dix heures Euh, huit minutes ñuy fàttali nag nag euh, tisbaaru ajjuma ji euh, changé wul ñu ngi koy julli diggante une heure et demie ba deux heures ci Harlem Taekwondo ba kon maam fa bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni mooy tàggatoo bi looy tàggatoo ak mbokk jullit yi waaw di wax mbokku jullit yi rek di gërëm euh, auditeur rajo daara ji mhm. euh, ci jàppale bu am solo bi nga xam ne ñu ñu koy jàppale mhm. euh, suñu chauffeur yi nga xam ni ñooy bàyyi seen liggéey di mhm. dawal half an hour wala one hour di ñu mhm. yóbbu di ñu indi mhm. vraiment jël seen euh, temps yëpp def ko ci rajo daara ji mhm. li may wax toujours rek yaay daara ne rajo daara ji équipe la équipe la boo xam ne bii mu ngi ci diggante auditeurs yi ak chauffeurs yi ak boroom xalaat yu rafet yi nga xam ne ñu ngi ci biti ak euh, borom euh, ñi nga xam ne ñu ngi jàppale rajo daara ji financièrement ñooñu ñëpp ñooy équipe bi ñun dañ leen fay toogal rek. Mhm. di leen di leen euh, nekkal ci machine yi. Mhm. waaye liggéey bu am solo bi nit ñi ci suñu ginnaaw ñoo koy def kon di leen jërëjëf bu baax a baax a baax. Mhm. di fàttali rek tamit fundraising bi euh, nit ñi jóg ci bu baax a baax a baax jël ci seen i ay matuwaay ba suñu fi jógee la ñuy soxla dootul war a bari ndax euh, néegu yàlla bi fi mu toll nii. jóg taxaw bu dëgër a dëgër a dëgër la laaj. jógaat bu dëgër a dëgër a dëgër la laaj mhm. euh, di wax ñëpp rek di leen jox courage di leen encouragé pour ñu def ci seen alal ak jóg wuti luñ ci def incha allah xam naa semaine bii di ñëw bu soobee yàlla mooy nekk suñu sunu page spéciale euh, muy néegu yàlla boobu kon ñu dégg li ñu wax ci def ci euh, néegu yàlla kon euh, faa tegal alifani amat mazayaw bal bal dara zawayaw loolu la leen rajo daara ji tàggoo di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal suñu bopp di leen jox daje àllarba bi di ñëw di ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee bu ne ñu mën dellu siwaat mën leen indil li nga xamante ni mooy bégal euh, euh, soppee rajo daara ji kon Mor Mbuub Mansour yaa moom ziyaar bi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 وتغفر لنا بها ذنوبنا وترحم بها موتانا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج المسلمين وتشفي بها امراضنا القلبيه والجسميه شفاء تاما لا يغادر سقما ولا الما ولا اثرا ولا وجعا وتسوي بها صفوف المسلمين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 ñuy jox daje euh, mbokku jullit yi daje àllarba bi di ñëw di ñaan yàlla may ñu tal may ñu fekkee wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala WPAT Patterson. AM 930. New York. It's WPAT. WPAT.

mbokk jullit yi mbokk taalibe yi loolu la leen uh, rajo daara ji indiloon tey doon ko ziyaare sunu mbokk uh, jullit yi nga xamante ni ñooy sunu mbokk laayeen yi nga xamante ni ñu ngi waajal appel bu mag boo xamante ni ñu ngi koy def ci Rhode Island ñu di ci ziyaare laayeen yépp nag ñi nekk ci uh, Amérique ci de états yépp ñu ngi leen ci ziar bu baax a baax di leen ndokkeel di ñaan yàlla teg leen ci yóbbu leen ci ci jàmm euh, di ziar bu baax a baax a baax a baax kodelaay ak daayira laayen bi yépp ñu di leen ziar bu baax libaas caw laay ñoom ñépp ñu ngi leen di ziar euh, bu baax a baax di leen ci ndokkeel tamit euh, bu baax a baax a baax a baax di ziyaare bu baax a baax sama doom bas uh, laay muy waajal uh, tamit guddi gu mag goo xamee mi ngi ko jëmale ci ki nga xamante ni moo daan uh, médiateur bi nga xamante ni moo daan ñëw di jokkale di def lu baax ci diine ji ak lislaam muy Chérif Ousseynou Laye mu di waajal nag bis bu mag boo xam ni premier juillet incha allah lay am euh, ci Harlem bi dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu incha allah. bu leen ko tee amoo xarit bu sax waraatekaat la kon ñu di leen ziyaar bu baax a baax waa kër Seydina Limaamu di leen ndokkeel di ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak uh, jàmm ak salaam te buñ ci yóbbu uh, yàlla nañ ko tal yàlla nañ ko uh, fekkee jàmm te tal ko jaay na bi kon loolu moo doon ziyaaru waa kër Seydina Limaamu yi jërë ngeen jëf ñuy si sant bu baax a baax oustaz Baytiir di sant bu baax a baax tamit waa soppee na bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu fësalal oustaz Baytiir ba ñu mën si taataan xam-xam bu rafet boobu jërëjëf. alifani amat mazayaw bal darat bal darat zawayaw مزاياه بل دار الزواياه عمت مزاياه بل دار الزواياه الفان الحمد لله هذا الشيخ رباه خير الوجود له ذي أعلاه مولاه محمد مزاياه بل دارت زواياه عمد مزاياه بل دارت زواياه ألفان ربا بلا خلوة تن أصحابه علنا حتى استقاموا فهم يا لله من حاه عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه لخجا بهمة أو بحال حذتر بيتا نعم المربي مه ريب الحق يرضاه البان عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه شيخ تيجان يسقي المريدين من كأس الوصول لإلى نحو المراد له ذي قد كان مأواه لسان محمد ماذا يروا بل دارت زواياه محمد ماذا يروا بل دارت زواياه ولكن نال الخلافة قد شاعت ويرا فتو أتاه ختم مئ للرحمن والجاه عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه لخجاكم له ثمن من المختار مشتبلا بشيعة حازه هاي أرضى بمسعى بال عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه شفتي جان فلا يماثل هو بحر له مدد صاحي ولا الجود حقا من سخاياه عمت مزاياه بل دارت زواياه عمت مزاياه بل دارت زواياه لخجاكم ولو حوى جودا المعهود في طلب بحر لا أوعابه درا من عطاياه mbokku jullit yi mbokku taalibe ku dégg loolu rek xel yépp dañuy dem ca bone borom bone kaara bi ñu di di ci ziyaar bu baax a baax sëtëm yu baax yi di ci ziyaar bu baax a baax képp koo xam ne rek soppee xalifa Ababacar nga wala képp koo xam ne soppee Seydi Hadji waaye dam way euh, ziyaar bi nag dama koy jël lépp rek jàlleel ko sama góor sama xarit di Mor Mansour ñu di ko ci ziyaar bu baax a baax a baax looloo tax maada tara min rijaalillahi kul lihimi wa huwa almumid وفي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم mbokk jullit yi mbokk taalibe bi loolu bu ngeen ko déggee rek xel yépp dañuy daal di dem kër Seydi Hadji Malick ñu amoon fi xew-xew bu mag boo xamante ni ah, waa communauté Casamance bi di waa Areska defoon nañ ko ñu def ko ah, Euh, defoon ko muy xew-xew bu mag a mag a mag a mag mu doon euh, gàmm seen gàmm gi nga xamante ne defoon nañ ko tubaarkàlla jullit yëpp ñëw ànd ak ñoo euh, bokk gàmm gi ñu am ci ligne bi nag ki nga xamante ni mooy Myriam mu fas yéene ñëw na ndax ku woote ñu wuy si la defe naa boo sante gërëm wàcc nga kon ñun bu def lu dul bàyyi leen ak Myriam seen mi nga xamante ni moom moo yor seen euh, porte parole fas yéene ñëw indi leen cant ak ngërëm gi nga xamante ni jóge na ci waa Arescar Myriam bismillah waa kañ jërëjëf yaay Dara maa ngi lay gërëm di la sant di la ziar bu baax di la remercier ci sa taxawaay alors euh, effectivement comme ni nga ko waxee suñu euh, conférence annuelle bu ñuy def chaque année moom la ñu defoon le premier juin wax dëgg yàlla jullit yépp wuy suñu ñu fas yéene rek tey au nom de toute la Casamance de la communauté casamançaise remercier leen. alors waaye balaa ñuy commencer remerciement bi naa wax d'abord ne mu ngi sant yàlla bu baax sam borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ñuy euh, euh, remercier d'abord suñu kilifa yi mooy euh, les doyens de la Casamance. mooy doyen Moussa Sambo doyen Ibrahima Sonko doyen Soli doyen Souleymane Seydi doyen euh, Sambu doyen Omar Soumaré doyen Kekoy Badji doyen Amadou Diallo ak doyen Salomon Diédhiou ci seen taxawaay ni ñu organiser donc euh, conférence bi ce jour-là du premier juin ñuy jàllale ngërëm aussi ci suñu grande sœur yi suñu kilifay jigéen ñi muy Ami Samb mm-hmm. euh, di euh, Aïda Gina mm-hmm. Fatou Gueye mm-hmm. Adama Badji Tuuti Koli Yaay Daara ak euh, képp ku fa teew woon keroog ak ñu mënul ñëw yépp fekkee ah ñi naan après donc les doyens les sœurs de la Casamance ñuy jàllale ngërëm li ci euh, Serigne Daouda Sy muy mhm. defal conférence bi chaque année mhm. mu jaral ko lu ne bàyyi itam yëpp ñoo taxawuñu wax dëgg yàlla ça fait plus de quatre ans léegi ñu ngi koy def ñu di ko ñaanal yàlla mhm. yàlla bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg ànd ak wér ak wérle amiin yaa ak ñi mi àndaloon Elimane Boubacar Dabo ak Serigne Omar Diété ñuy remercier nag délégation yi fa teew woon euh, di remercier bu baax Chérif ay darabu Rhode Island. Mm. di remercier euh, daayira Tijaan euh, ci njiitalu soxna euh, Khady Diop. Dabaax mm-hmm. Dabaax. Mm-hmm. ñuy remercier aussi daayira confédération Tijaan. Mm-hmm. ci njiitalu Yaay Daara. ak présidente d'honneur Tijaan muy soxna mu Oumy Sy Djamil. soxna Safara daayira soppe nabi bi euh, ci njiitalu Ndey Fall Jules mhm. ak Ndumbe Ba mhm. ak Ndey Sali Diop mhm. daayira Maam Jaara soxna Mumi Seen daayira laay ni ci njiitalu soxna Nabu Laay daayira Ñaseen ci euh, njiitali euh, soxna Faatu Sall su ak soxna Faatu Ñas ñuy remercier bu baax tam di ko gërëm di ko sant muy soxna awal Ndaw mhm. ñuy remercier daayre xaadriyaa yi aussi ci ngiitali soxna Maam Fatou Seck mhm. ñuy remercier délégation bu jógee aussi Staten Island muy euh, euh, ci ngiitali euh, imaam Muntaga Sakho mhm. ak jigéeni Staten Island yépp yu fa teewoon keroog ñuy remercier bu baax suñu góor di suñu càmmiñ di suñu jëkkër muy euh, yaay daara dimbale ma jëkkër yi Rama Diallo. oh sama papa Faly Ndiaye. voilà Faly Ndiaye wax dëgg yàlla ku ñu ràññi ci suñu conférence bi. ak sama taaw dina ak ñu mu àndal ñëpp mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. xaw ma turi ñëpp waaye xam naa ne seen daayira boobu ñëpp mm-hmm. farlu nañu ci suñu affaire dinañu jàppale. ak taaw Daouda Sarr ñi remercié góor ah? yaay daara Daouda Sarr. Daouda Sarr wax nga dëgg daaw da Sarr moom itam suñu góor gu baax la. Mhm. ñu ngi koy remercier ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp yéen ñëpp. wax dëgg mhm. yàlla ñu ñëw ak ñu ñëwul. Mhm. xam naa ne xel yaa nga fa woon itte yi la rek. dëgg la ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla mee ñu ñun ñëpp gudd fan ak wér gu yaram. dañu defaat ko dëwen dañ ko fi yàggaa des. yaay daara ci sa taxawaay yooyu itam ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax xam naa ne yow dootuñu lay wax ne sax yaay daara ay a baax léegi jéeju lañ lay santale wala baañ incha allah waaw jërëjëf waay yaay dara xam <laughs> dafa am dafa am benn xew-xew bu ngeen di waajal euh, defe naa soxna Myriam waaw muy euh, journée Alioune Sitoé Diatta euh, waaw dëgg la mm-hmm. waajal defe naa le vingt le vingt quatre août incha allah yàlla nañ yàlla yóbbu ak jàmm amiin yaa rabbi amiin allah xam naa dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu waaw incha allah incha allah incha allah le moom. Mhm. journée culture soirée culturelle Aline Sitoé Diatta. incha allah ñuy bëgg wax lool di gëstu si suñu marraine boobu di jigéen gu mag ñuy naan Aline Sitoé Diatta. Mhm. la résistante Casamance 16. ah léegi nag euh, wax dëgg yàlla moo waral guddi gi ñu woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw Casamance Sénégal na ñëpp jën taxaw ñu mhm. màggal bés bi waaw incha allah waaw yal nañ ko fekkee jàmm ci darje rasulullah waaw kon jërëjëf waay yaay euh, yooyu moo jóge woon ci fi nga xamante ni mooy waa Areska waaw ah, ñu santoo gërëm ku woote ñu wuy si la boo santee gërëm wàcc nga kon Myriam indi kàddu yooyu nag joxe ko ci turu waa Areska di sant mbokku jullit yëpp ñi nga xamante ni teewoon nañ fa ñi bëggoon a ñëw te yàlla dogalu ko ak ñi amoon yéen a ñëw ñëpp rek gërëm nañ leen sant leen ñaana leen di ñaan yàlla may leen ñu fekk ko ay at yu bari te lépp luñ fa taataane yàlla nañ ko jëriñoo ndax keroog euh, defe naa sëñ Daouda waxtaan na waxtaan woo xam ni enregistré nañ ko incha allah dinañ leen ko indil fii ci rajo bi tegal leen ko ngeen déglu ko ak waxtaan wu nga xamante ni oustaz waxtaan waxtaanoon naka tamit samedi bi nu génn ci New Jersey moom it euh, dinañ ko ci waxtaan kon Myriam jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf jërëjëf yaay Daara jërëjëf jërëjëf euh, ñu ngi ci ligne bi ba tey ak soxna Mamfa Wade Wele Euh, mu fas yéene ñëw nuyoo ndax euh, ba nu commencé émission bi léegi dégguñu ko euh, ndax dafa jàppoon xat waaye léegi pare na mi ngi ci ligne bi mu joxe ziyaaram ak nuyoo ñu daal di dem ci ki nga xamante ni nag mooy Alaaji Ibu Caam ñoom it ñu xam ni association Gambien bi woote woon nañu keroog le huit macha allah mbokku jullit yëpp ñëw wuy si leen moom it mu ñëw indil nu li nga xamante ni moom la ñu jëlalee Euh, foofu muy cant ak ngërëm waaye bala maam fa waaw waaw bala ma lay euh, jox euh, kii bi rek dafa am benn kiw quarante cinq minutes boo xam ne rek dama koy dugal pour mbokku jullit yi bonjour Daouda j'ai appris que tu te maries par la grâce de Dieu as-tu fait le test de l'hépatite non j'ai pas le temps il faut te faire tester tu n'es pas le seul maintenant oui

kon niñ leen ko waxee woon léegi rek muy hépatite B bi nga xamante ni mm, yàlla na ci yàlla musal euh, bépp euh, doomu aadama muy feebar boo xam ni sares lay jàpp di ko euh, rongé ba xëy rek daal di lay daaneel ndax feebar la boo xam du manifesté wu doo ko yëg fenn kon képp koo xamante ni euh, euh, bëgg nga ci euh, xool ndax feebar jàngoro jooju dal na la wala dalu la da ngay daal di dem rek ba African Community Services ci 429 cent 127e Street diggante Convent ak Amsterdam dina ubbi altine ba alxames diggante 9h ba 5h wala nga woo leen ci 212 222 38 82 kon képp koo xamante ni euh, yaa ngi fi ak sa njaboot demal nga xool loolu nga xamante ni mooy euh, euh, feebar boobu nga xamante ni du manifesté wu waaye dem xool sa bopp rekk te doo fay dara ndax lépp loo fay def amul nga am kayit nga ñàkk am kayit boo ñëwee dina la toppatoo dinañu def li war lépp ci yow te doo fay dara kon na ñëpp dem euh, African Community Services seeti euh, seen yaram ko jullit yi mbokk taalibe yi euh, ci kaw loolu rek ñu ngeek sunu góor sunu xarit muy alaaji Ibu Caam ni ma ko waxee léegi rek ku woote ñu wuy si la di nga sant di nga gërëm kon nag cant ak ngërëm du doy ñu bàyyi leen ak ji Ibu Càmm mu ñëw ci yéen ci cant ak ngërëm ga nga xamante ni indi na ko waaye balaa boobu rek maam fa looy nuyoo tey rajo daara ji bisimilah euh, yaay daara waaw la béyka di wax onze billahi mina sheytaani rajim mhm. bismillahi rahmaani rahim di nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu Amérique ak tout le monde entier ndax dañuy wax tout le monde entier ndax gis nañ ne léegi rajo daara ji dafa am yeneen feem yu bees yu bare bare bari yoo xam ni ñu ngi koy def di ko liggéey ci suuf rawatina euh, ñooñu di waa ak yi link ak rajo daara ji directement nga xam ne lépp loo xam ne réer na la ci sa diine wala ci sa émission boo demee foofu ca website ba danga ko fa fekk ak yeneen i liggéey yoo xam ne ñu ngi koy waaj a taxawal donc di wax euh, mbokk jullit yi rek euh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax rajo daara ji mu ngi leen di bégee bu baax a baax gis nañu ndimbal li gis nañu jàppale bi ah, ñi wax rek ni seen émission la seen rajo la ñun defuñu lu dul toogal leen foofu di leen animeel lépp loo xam ni moo koy doxal di jóge ci ay boroom xam-xam di jóge ci gëstukat yi di jóge ci nitu diine yi dañ leen koy indil foofu di leen ko fa jàllaleel mhm. ngir jëmale lislaam bi kanam mhm. kon ma bàyyi auditeurs yi ak euh, Serigne Ibou Thiam mhm. mi nga xam ni ku ne xam na lu am solo li nga xam ne mu ngi koy dox ci communauté bi mhm. sëñ Ibou waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di leen balu xaq yéen ñëpp di ba di baal ñëpp xaq di ñaan yàlla ñu ñëpp ñu tam mu taaw ñu boole ñu baal ah, li tax ma ñëw tey rek mooy dama wax ci tur yi mbootaay bi ñoo wooy United Gambian Association dem nekk nag ma jiite ko mhm. damay gërëm rek nit ñi ci ah, xew-xew bi nga xam ne xewoon na samedi bi passé di on the eight ci all muslim center fële nga xam ne fa lañ doon defee suñu islamic fundraising bi ci turu euh, organisation bi yëpp mhm. ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser ci jiital leen di passé ak ñi ci gannaawam yëpp yëpp ba Gaaba ak euh, Sédhiou Touré mhm. ak euh, islamic committee bi nga xam ne ñoom ñoo ngànk affaire yi islam waxtu woo xam ne United Gambian um, woote nañ affaire yi islam mu jiite leen euh, di Moustapha Li euh, Thierno Hafiz Diallo ak mm-hmm. imam Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw ak imam euh, Ibrahima Tambédou mm-hmm. Khady Diop Dabakh mm-hmm. Diafat Dieng Diafa Ndeye Fatou Diagne moom nga Gambie sax wax dëgg yàlla waaye terewut def na ci liggéey bu rëy ci diggante bi mu fa nekkee ak xaritam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi mba si Faty Khady Diop da baax Mbaxe Ñang ak Fat Ndiaye Maodo ak euh, Mariama Sané mhm. Ndey Sukay Ndiaye Awa Fall Diallo Ndey Antimati Diop mhm. ak waaw ñooñu daal ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ngank mbiram islam mhm. ñu ma li ma wax nag maa ngi ko wax ci turi ñii ñëpp mboolem ko xam ne ñoo nga fekkle fekkele suñu ci um, këri diine yi yëpp Euh, maa ngi ci jiital kër Sëñ Touba jiite leen jiite woon leen di euh, mm, Alaaji Sëriñ loo mm. ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci gannaaw Mika kon tudd naa euh, xadara murid yi yëpp mm-hmm. beneen beneen bi di topp mooy daayira Maam Jaara jiital leen di aji moomi seen ak mboolem ñu nekk ci gannaawam mm-hmm. yaa maami daara ñëw na fa teel mm-hmm. xam ngeen ne bés boobu xew yu bëree bëri amoon am na ñoo xam ne dañ jaar fii def la ñoo def jaar fële def la ñoo def pour gën a ci yoon waaye ñëpp ci xew yu mag ñoo amoon yoo xam ne ñi ñëpp ci lañ jaabante waaye amul kenn koo xam ne ki ñëw ci xaddala ci comité africain yi nga xam ne moo ne ñoo nekk fii mm-hmm. moo xam tukuloo yi la moo xam joolaa yi la moo xam ah, ah, waa Casamance la moo mm-hmm. xam ak ñu mën a de ñëpp ñëw nañ xaddara mm-hmm. Malick bi jiite leen di Alaaji Jibril Guèye mi nga xam ne moom ñu ñu jagleeloon guddi gi ci la bokk daanaka waxtaan wi ci yi fa am solo. Mhm. lu ci ëpp moom moom moo ko def. moom it moo jiite xadara Maalika bi yëpp xadara Maalikiya bi yëpp su ma ko tuddee kon tudd naa ñu ci des yëpp ak président bi ta euh, Alaaji Taala Njaay. Mhm. kër Islam ba Alaaji Ibrahima Niass président bi ñëw na di Jim Guèye ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndat ñoom ñëpp gis nañ leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Mhm. bu jigéen jigéen ña ah, Aji Faat Niass ñëw na ak Aji Faat ñoom itamit gis nañ ñëpp waa kër bay fa xalifa tamit gis nañ leen ñëpp ci ñoom ñëpp gis nañ leen hmm. laayeen yi gis nañ ñëpp ci euh, turi daam euh, daam Diop laay ak euh, Sénégalais association bi ci njiitali Alaaji Sëñ Pape Dramé ñoom itamit ñëw nañ gis nañ ñëpp léegi daal ñu ngi tudd ak tudd ñëpp réew mi yëpp ñëw nañ dëkk yëpp ñëw nañ ñëpp ñëw nañ ñu ngi leen di gërëm di leen sant yaay daal nag man ñu maa laa sant hmm. di la gërëm ci turu ñi ma tudd ñi ñëpp nga xam ne ñoo ngan Mm-hmm. United Gambian Association ñu ngi la gërëm bu baax a baax a baax. Euh, seen ngërmande am na fu mu dalee waaye amu fu mu yem. su ma la gërëm su ma la waxee nag wax naa ci turi ñu ma la wax nii ñëpp ñëpp la gërëm. ñu leen di sant di gërëm di ñaan yàlla. ñu euh, fekkee déwén ak jàmm be balaa déwén kenn ci ñun mboole mbootaay yi fi ne kenn pël bu ci nekk na jekk ba di soxla fundraising. su ko defee ñun ñëpp ñu bokk li ñu doon fexe pour ci fundraising ñun ñëpp ñu am ko. ñun ñoom ñoo bokk ànd di liggéey mhm. um, yaay daal daal loolu moo doon wax ji ci gàttal mhm. ñu ngi laa gërëm di leen sant mhm. di nuyu a fa di leen ñaanal yàlla mu àggal radio bi foo xam ne fii fara suñ njort um, àggul sax yàlla uh, rombale ko si suñ njort ci barke alxuraan barke yonent bi gërëm nañ la daal bu baax di leen sant ñu alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah maam fa waaw jërëjëf sëñ Ibou uh, wax ji rafet na lool Mm-hmm. Euh, ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm euh, suñu présidente Khady Diop Dabakh mm-hmm. gis nañu coono yi nga xam ni daj na ko ci mëtale rek mm-hmm. jataay yépp yàlla na ko fi yàlla bàyyi te dooleel ko waaye sama yaay dafa waroon dugg tey pour euh, wax ak ñun ci soose waaye ñëwul xaw ma nag lu tax ñëwul mais dama ne ko woon boo ñëwee boo waxee ci soose ba pare man danaa ko tekki ci joolaa waaye comme ñëwul dañ koy bàyyi rek ba àllarba bii di ñëw ndax fokk mu wax ci soose rek ma tekki ko ci joolaa tey maa waroon remplacer Yaama Saane waaye comme sama yaay euh, euh, duggul rek euh, dañ koy bàyyi rek ba àllarba bi di ñëw maam fa looy dolli rek ci programme bi tey waaw ci programme bi ñuy fàttali rek ne mm-hmm. comme ni ko sëtu Maodo bi ci réew mi di defee di mm-hmm. sëñ Ahmed si yit fa Euh, tàllal xadara yëpp fii ci état yi ci Amérique yëpp ñuy mhm. fàttali ne euh, ñu ngi préparé gàmmu Kentucky mhm. Kentucky dëkk boobu nga xam ni euh, li ñuy wax daal ni fa maamam tegoon tànkam rek ruq bu ne rek dugg na fa rek am xadara bu fa teg rek maam fa tegal sa baaraam ma ñëw waaw ألفان عمت ما yaay daara waaw bisimilah bisimilah. ñëw ah, dafa mel ni da am problème technique. waaw waaw dafa am lu ma doon essayé mais jàllul mais continuer àggaleel àggaleel ba. waaw ñi fàttali mbokku jullit yi rek ne euh, gàmmu kenn tukki incha allah le 15 la. Mhm. Euh, ñu koy fàttali rek ne ku fa mën a jote. Mhm. ñu koy yëgal ñëpp nag ñu ngi koy rëgg yëgal xadara yi ci Amérique yëpp. Mhm. comme niñ koy defee rek saa su ne dëkk bu xewle ñëpp dem taxaw fa. taxawal fa xadara yëpp. Euh, ñu ngi ci woo ñëpp di ci di ci sant nag président ba foofu di ci sant nag euh, Papa Ndiaye Guèye mhm. euh, suñu xarit suñu soppe bi nekkoon nag ñun fii Cheikh Tidiane Mbaye ñoom ñoo xewle ñu ci woo ñëpp nag di ci woo Américain yëpp ñi ci profité rek di ci ziar suñu gan googu Idrissa Gueye mhm. ku ne xam na ni muy def tant rasulullahi sallallahu alayhi mhm. boo toogee di ko déglu balay tant ba di jeex ah la yëkkati woon da ca am lu la neex lool lool lool lool lool. Mhm. fàttali mbokk jullit yi ne gàmm googu moom moo koy taxawee incha allah. incha allah maam fa macha allah matale na jotale na waaye ñuy fàttali rek ba tey nii ñu ngi waajal fundraising bu mag boo xamante ni mi ngi am le 10 juillet fu muy awee ca Zawiya Seydi Hadj Malick at mu jot ñaari euh, fundraising la ñuy def. kon euh, bi ñuy def euh, mois de juillet mooy bi euh, topp ci bi ñu doon def décembre muy kon décembre la ñuy def ak juillet kon bii di ñëw incha allah ñu ngi koy def le 10 juillet information bi mi ngi jóge ci Harlem Islamic Community Center muy zawiye waa kër zawiye Seydi Hadj Malick ci 108 East 128 East Street diggante parc ak Lexington fundraising bi nag maam fa ñu ngi koy defee ca place kër ga ca zawiya ba pour mbokk julli di gis euh, liggéey bi fu mu toll ak euh, li nit ñi doon dugal ci seen doon joxe seen xaalis fan lañ ko def ku ñëw incha allah sa xol dana sedd ndax di nga xam ni lépp lu nit joxe rek euh, agsi na te dugg na ca ci néegu yàlla bi maam fa waaw yaay daara loolu li ma ci dolli rek bu ma ci wax sax damay am kontante gu yaatoo yaatoo yaatu mhm. ndax ku ñëw ci place boobu rek xool liggéey bi fi mu toll ak béréb boobu na mu meloon bañ koy jël mhm. nga xam ni kenn du waa Amérique mhm. rawatina waa New York mhm. am ni ay jàmbaar lañu lool la projet boo xam ni ëpp na deux millions de dollars ñu yëkkati seen dërëm ak seen tànk ak seen bu ñu dara ku ne jóg daw di ko wuti ci sa ay nit ci sa ay mbokk ci sa ay xarit ah ñu leen di gërëm di leen sant nag di leen joxaat nag beneen beneen beneen beneen rendez-vous comme niñ ko daan defee rek ku nekk fa nga xam mën ko fa wute ji nga dem wute ji ko fa bu ñu dix xee bu ñu vingt dollars xeebu ñu deux cent xee bu ñu thousand dollars ndax gis nañ ne kat mbokk yi liggéey bi seen liggéeyu bopp la ñoom comprendre nañu ku ne xam nga la nga fay def investissement ba fa mu jëm loolu rek euh, doy na junju euh, ñi wax rek ni ñi ngi lancé waat appel mbokk jullit yi nekk ci Amérique yëpp laay wax ndax euh, defe naa ni fii ci Amérique amatuñu xàjji ak seen kenn ku jóg rek ñëpp dëbbale la euh, gis nga li fi jaar léegi ñu ci profito di ci ziar suñu xarit Béthio Laye di ci ziar sunu xarit euh, sëriñ di Baslaay mhm. leen ndokkeel bu baax a baax mhm. kon ñi wax ne néegu yàlla boobu ku ne xam nga ni néegu yàlla la néegu suñu borom bi la mhm. ku ne la nga def xam nga fa mu jëm euh, ñu leen di jox rendez-vous le 10 juillet boobu nag bëgg nañu mbokk jullit yi préparé ko nag préparation bu am solo nga xam ne bii fii liggéey bi toll bu ñu defee fundraising boobu nañu mën a def ay jéego yu bare bare bare bare yoo xam ne day jëmale place boobu kanam Euh, mm-hmm. dafa am euh, xew-xew boo xamante ni dafa xewoon keroog euh, le huit incha allah muy ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokku gambien yi bi ñu wootee tamit defe naa waa New Jersey yi tamit woote woon nañu keroog mm-hmm. woote bi ñu woote woon du woote lenn lu dul yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam borom barrière or ba ca Medinatul Munawwar mm-hmm. ka doon def waxtaanu di oustaz Baytiir Laay ñëw waxtaan fa waxtaan woo xamante ni macha allah waxtaan woo maam fa fokk dinañ ko indi tegal ko mbokku jullit yi ci rajo bi. ñu mhm. déglu ko ndax keroog képp ku dem ñu jéesi sa xol sedd na. dégle jële nga fa loo xamante ni bi nga ñëwee xoolaat nga sa bopp euh, nattaat nga sa bopp delloowaat nga sa bopp ci euh, sunu boroom xam ni euh, la nga fa jële njëriñi kese la mhm. ña ko woote woon nag di soxna Aminata Dial ànd ko ak Euh, ki nga xamante ni mooy euh, borom këram euh, di jibi taxa ànd ka ak ñoom bàjjan ñoom xadijatu ñoom libaas ñoom ñëpp macha allah ñu ànd ko jullit yëpp ñëw wuy leen ñu taabal jana ki nga xamante ni mooy oustaz baytiir toog fa sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di moom Chérif Mamadou Lamine Aydara sama doom taaral jataay ba ànd ko ak sunu consul bu baax bi nga xamante ni xeebalul kenn bisam. Mhm. waaw Sidi. xeebalul kenn bisam. wallaay. ñàkkul euh, fonk na ñépp mhm. jox na ñëpp seen cër. ku si ne rek xam na la nga yellool mu jox la ko ñu di ko gërëm bu baax a baax di ko sant di ko ñaanal wér di ñaan yàlla yokk garaatam fii mu toll yàlla na ko dépassé euh, ba nga xamante ni dana romb fii. di ko ñaanal bu baax a baax a baax. ndax euh, mi ngi wane exemple. Mm-hmm. waaw wax exemple bu baax a baax mi ngi koy wane. taaraloon na bis ba ànd ko ak sama góor Talla Mbaye ak euh, waa consulat ba yépp kon ñu di leen gërëm bu baax a baax di leen sant ci duru turu daayira xubbu taxaa bu New Jersey waaye tamit muntaxaas euh, muntaxaas saxo taaraloon na jataay ba ak mm-hmm. sunu imam imam Abdoulaye Diop ak vielaay waaye nag ñu ni ñu ngi jël cant li ak ngërëm li ak lépp di ko teg ci loxo euh, ci rajo daara ji ñu gërëmal leen mbokku jullit yëpp santal leen mbokku jullit yëpp ña ñëwoon ak ña ñëwul ak ña bëggoon a ñëw te yàlla dogalu ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, di leen sant euh, di gërëm bu baax a baax tamit ki nga xamante ni ñoom la ñu loon guddi gi maam fa mm-hmm. muy ku ñuy wax madam doy Euh, ñu gën ko xam ci may Maymuna Samb muy euh, euh, ndono mus maam Moussa Gueye Bakar Wali mu ñëw fa ci ñëw bu rafet tubarkalakaar ak mm-hmm. madame Ndaw ñu gën ko xam ci may sama kee ñëw ñëw bu rafet ah Ndey Faatu Jaañ ca North Caroline ñëw tamit ñëw bu rafet ñu di leen gërëm waa daayira bu taxa di leen gërëm di leen sant di leen eh, ñaanal bu baax a baax ñuy gërëm tamit di sant seen parents yi yi nga xamante ni moo doon eh, Seydou Diouf ci New Jersey Ibrahima Sow New Jersey ak sama góor sama xarit di El Hadji Sadiq Ngom ñu gën ko xam ci Ngomes yaayi daara ñu di ko mm-hmm. gërëm bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax eh, di leen sant di gërëm mbokk jullit yëpp nga xamante ni teewoon nan fa ñuy gërëm waa soppey na bi di gërëm daayira tiijaan bi di gërëm daayira laayeen daayira ñaseen daa daayira nguraan ñëpp teewoon nan fa macha allah nee na ñu bëgguñu lim ndax bu ñu limee dañuy juum waaye gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp ñaanal nañu ñëpp di ñaan képp koo xamante ñëw nga aajo boo fa indi woon yal na ko suñu boroom faj bi jaay na bi Moustapha képp ku fa ñëwit lépp loo fa taataan yal na nga ko jëriñoo barke barakatu au jour nee nañ ñu ngi gërëm maami daara bu baax a baax di gërëm soxna umu bu baax a baax di gërëm soxna safratal makki bu baax a baax di gërëm délégation yi fa ñëwoon yépp ñu ngi leen di gërëm di gërëm itam sama yaay bu bopp Ah, di Ndeye Rama jal àndoon ak soxna Ndeye Sali Diop ak Mami jóob Mami juuf ñu di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di beral ngërëm tamit eh, képp koo xamante ni ñëwoon nga jóge ci daayira Malikiya bi ku ci mel na Babacar Ndaw ak eh, taawu yaay daara ñu ngi leen di gërëm ñoom it bu baax a baax di leen sant eh, di leen ñaanal waaye maam fa waaw dañuy wax ni ngërëm li lépp nag dañ koy teg ci loxo Euh, euh, ki nga xamante ni mooy oustaz Vieux lay mm-hmm. waaw ndax vie oustaz Vieux Laye bu ñu ko gërëmee gërëm nañu soxna Ndumbe ba waa waa soppey na bi gërëm nañu euh, soxna Ndey Fall Jules gërëm nañ leen ñoom ñëpp macha allah mm-hmm. eh, nee nañu nag gërëm leeg cant yëpp dañ koy dox teg ci loxo Vieux lay mu gërëmal leen ñëpp santal leen ñëpp waaye gën leen dolli gërëm bu baax a baax a baax oustaz Baytiir kontaan nañu ci oustaz Baytiir fu kontaan di yem fa mu tàm am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem gërëm nañu jullit yëpp sant nañu ñëpp euh, ñu am rek benn précision boo xamante ni maam fa dañ koy euh, indi euh, muy communauté Casamance bi dañu joxe léegi ni Areska mais du Areska communauté Casamance bi yëpp ñoo taxawaloon guddi googu nga xamante ne mooy mm-hmm. gàmmu gi ñu defoon le premier juin ñu di ci gërëm mbokk julli yëpp di leen ci sant di gërëm ñëpp ña fa woon gërëm ñëpp sant ñëpp du Areska communauté Casamance bi la kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Mame Fall looy ba amee loo ci dolli bala ñuy jàll ci publicité yi waaw mën nañu jàll ci publicité yi comme ni nga koy waxee uh-huh. jotale na motale na macha allah kon tegal foofu tegal foofu sa baaraam ñu ñëw mbokk taalibe yi bu ngeen déggee loolu rek xel yépp dañuy daal di dem ba fa nga xamante ni mooy ah, si pharmacie maam fa si fi pharmacie nag daal di lënkoog association sénégalais bi di waa ASA ñuy liggéey liggéey bu am solo ci réew mi di dimbali képp koo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi boo amee sa ordonnance bëgg ko jot nu mu gën a gaawee jokkool ak waa bu jot sa garab nu mu gën a gaawee jokkool ak waa si pharmacie su fekkee da nga bëgg ñu seetal sa tension demal si pharmacie su fekkee da nga bëgg ñu xoolal la sa suukar ndax sa diabète yéeg na wala yéegul demal euh, si pharmacie su fekkente ni tamit euh, da nga déposer sa ordonnance bëgg ko jot te bëgguloo dem mën na la ko délivrer indi la ko ba si sa kër te doo fay dara bépp xeetu médicament boo xamante ne am nga nga ko boo demee ci si pharmacie dinañu jëflante ak yow ñu ni tamit su fekkee da nga nekk ci sa docteur mu bindal la ordonnance ca bëgguloo dem ba foofu joxe ko fa sa sa docteur mën na la ko defal prescription électronique nga xam ne day dem directement ca pharmacie ba ñu toppatool la ko nga mën ko jël si wala ñu mën la ko délivrer si pharmacie daal mooy dimbali askan ndimbal askan ah, tamit ñuy wax tamit ni su fekkente ni da am euh, lu xeetu lu mel na euh, ay pomat ak ay massage ak euh, yu ñuy seete tension yu ñuy seete diabète ak xeet bépp xëpp machine bu mu mënti doon boo jokkee ak euh, si pharmacie mën nga ko fay fii ka nga bëgg mu jël ko ca Sénégal mu jël ko foofu ñu ni si pharmacie nag moo fiy def loo xamante ni kenn defu ko fi muy xeetu lakk boo mënti dégg rek soo ñëwee dinañu wax ak yow mu mel na dinañu lakk français dinañu wax espagnol dinañu wax wolof dinañu wax arabe kon euh, si pharmacie daal defe naa ni moo génne na fi bépp xeetu jaaxle bu jëmoon ci lu jëm ci wàllu euh, euh, pharmacie ñu ni nag ko bëgg jokkoog waa si pharmacie da ngay woo Ousmane Faye wala Issa ci 212 665 zero wala nga dem ba 215 West 116 Street diggante seven ak 8 wala bu fekkee ca Sénégal la da ngay dem ba 10 à cité Soprim ca Patte d'Oie euh, boo demee nga wala nga woote ci 33 835 06 86 kon si ferme si daal génne na fi bépp xeetu jàqare boo xamante ni daan nit ñi daan nañu ko am si jot seen garab yi wala yu xeet yu demee noonu ñu ngi ci ligne bi ak euh, sama yaay soxna Xadi Jóob da baax muy indil ñu rek euh, euh, mottali boo xamante ni laaj bi Ibu Caam jàllale na waaye dañuy wax cant ak ngërëm du mat yaay booy bismillah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum yaay daara waaleykum salaam soxna Xadi maam fa ñu ngi ziyaar ñu leen a ziyaar bu baax jàmm yàlla nangu kazalika ah, ñu ngi ñëw na di gërëm di sant rek Ibou Thiam nag moom dafa wax ba pare ne ma moom daayira tijaan bi daal moom du ci laal dara parce que mun naa am bu ci laalee dara rek juum bàyyee na ma lépp léegi ñu ngi mu ne ñu ngi gërëm li ko commencé ca imaam Dieye imaam Dieye nga xam ne boo moo ñëw keroog jiite daayira tijaan bi nekkoon suñu guest speaker def fa fundraise bu am solo ànd ak Papa Talla Ndiaye di président daayira bi ñu leen a gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal ànd ak Abdou Aziz jàllo ànd ak Alaaji Mbay Ndiaye Maodo ñoom ñëppam fa woon ñu leen a gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal seen taxawaay rafet na ñu leen a ñaanal yal na yàlla fay leen amiin yaa suñ ci loolu nag ñu ñëw ci suñ sëriñ si di soxna Umu si Jamil ak soxna Saafara Taal ànd ko délégation bu am solo bu am solo bu am solo ñu leen a gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yal na yàlla digëral seen taxawaay ñu ànd ak koog soxna Faat Diop ànd ak koog Faat Bintu Samba soxna Ayda Lo soxna Faat Ndiaye Diop suma jabar soxna Mor Mbuub bàyyi wuñ kenn ñoom ñëpp ñëwoon nañ ñuy gërëm ñëpp di leen sant di leen ñaanal soppey na bi it ñëw nañ ànd ak kook Ndey Fall Zil ak soxna Xadi Ndiaye ak maami daara ñoom ñëpp ñëwoon nañ ñoom soxna Momy Sène ñu ripitaat liñ waxoon yëpp lañoo waxaat rek gërëm nañ leen santa nañ leen ñoom ñëpp ñëw nañ ñoom yaayi daara bàyyi seen soxla itteyee yëpp ñoom itamit nekk ci yoon wi réer ñaari waxtu waaye lu mu yàgga yàgga ñu ne dinañ ñëw ak si ñu leen ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yal na yàlla jàppandal lépp barke Seydina Muhammad amiin yaa rabbal alamin jërëgeen jëf jërëgeen jëf ñu gërëm ña fa teewoon ñëpp nag bàyyi wuñ kenn ñi buggoon a ak ñi buggoon a ñëw te mënuñoo ak si yëpp gis nañ seen ndimbal yal na yàlla fay leen. kon jo jo soose bi dañ koy bàyyi ba àllarba ah incha allah. incha allah ci zàkk mu laa wax. wax ji jotale na matale na macha allah ah, lépp loo xamante ni ah, manqué na rek si ñun la waaye yéen matale ngeen di gërëm a ah, di leen sant di leen ñaanal maam fa allo. waaw bisimilah. waaw maam fa dañuy dem rek ba Sahel international bu ñu demee Sahel international ku ñu fay fekk fekk fi Jibi Ndiaye mi nga xamante ni mooy docteuru euh, rajo yi di euh, euh, dimbali rajo yi bu baax a baax a baax baax xam jàngoro rajo yi te di a faj boolewu ci lenn. yaay Daara. Mm-hmm. kooku defe naa mooy sponsor officiel bu rajo Daara l'islam. maa la ko wax jëkk ci te ba léegi yox yoxu ci delluwu ci gannaaw di jàppale rajo bi bu baax a baax a baax a baax. Euh, Sahel international foofu ku fa dem di nga fa fekk en di nga fa fekk détail fa muy 100 pour cent human hair di nga fa fekk tamit perruque yi GSM téléphone yi accessoire téléphone yi bu dee luy taaral jigéen maga nga fa imaana nga fa fashion fair nga fa ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yuy taaral jigéen rek la ñu ni jibi ku fa bëgg dem da ngay dem ba 12 34 west 31e street essor bi di numéro cinq ci diggante Fifth ak Broadway wala nga woo Jibi Ndiaye mi nga xamante ni mooy docteur rajo yi ci 718 924 6420 wala six 212 564 25 four uh, five uh, ñu ni uh, maam fa ji bi yemul foofu ndax nee na képp koo xam ne yaa ngi ci àll bi bëgg taaral sa bitig jokkool ak moom dina la yónnee bagaas yi ci anam wu gën a rafet nga yokk sa bitig taar yamul foofu ba tey mu ni képp koo xamante ni yaa ngi tukki boo bëggee yóbbal bëgg sëriñ boo xam ne boo àggee njaboot gi kontaan demal ba Sahel International nga fekk fa Jibi Ndiaye loo euh, maam Fall looy dollu ci Jibi. xanaa di leen wax ni Jibi Ndiaye produit yu baax yu am solo la yor. Mhm. yoo xam ne ay prix nag amul benn compétition. Mhm. bëgg produit bu baax a baax a baax bu professionnel. Mhm. boo demee ca place am boobu da nga fa gis lu jéggi dayoo. loo xam ne lii sa bëgg-bëgg fu mu mën a toll rek da nga ko fa fekk. ca produit yooyu. kon ñuy wax Jibi baax maam fa dañuy jógee ci jibi rek dañuy demat ci suñu beneen beneen sponsor koo xamante ni ku jàppale la muy Seydina Senghor bureau Modou Lo office nekk ci twenty twenty four euh, twenty four seventy eight bi di ci et avenue nga xamante ni képp koo xamante ni def nga accident wala ngay liggéey fa ngay liggéeyee ñu bëgg laa néewal doole wala ñu bëgg laa nax boo demee ba miro Modou Lo office di nga fa fekk euh, Seydina Senghor muy Seydi abu Aboubacar mu jàppale la ci bépp xeet boo xamante ni yaa ngi koy jànkonteel boo fa ñëwee rek dina la ci dimbali ci an na mu gën a rafete ñuy wax ni képp koo xamee bëgg nga jokkoo ak euh, Seydina mën nga ko woo ci 212 426 8877 wala nga woo ko ci 212 439 80 4 Euh, Seven kon maam fa looy wax ci Seydina. yaay daara li ma ci dolli rek mooy Seydina Senghor gëstu bi nga xam ne am na solo mu koy def lool. Mhm. lépp loo xam ne lii mooy njariñu immigré yi fii ci dëkk bi. Mhm. lu jëm ci code lu jëm ci loi. lu mhm. jëm ci ay loi yu bees. lu jëm ci intérêt euh, immigré yi. Seydina Senghor daf koy gëstu. di ko càmbar jox ko sénégalais yi foofu fri boo ñëwee lépp loo bëgg ci diggante kër low income ay documents yoo soxla loo war a wut application boo demee di ko fa fekk kon nag loolu moom lu am solo la loo xam ni nii Seydina mi koy taxawal communauté bi te lépp daf koy def rek ngir fisabilillah ngir communauté bi rawatina communauté sénégalaise bi. kon jërëjëf Seydina euh, waaye fa dafa am koo xamante ne nag euh, mënuñu bañ a ñëw ci moom. muy kii sunu sponsor boo xamante ni day jàppale rajo daal ju bu baax a baax muy Dabakh Boutique Solution baax Boutique Solution maam faa ku fa dem koo fay fekk ah Dabakh boutique solution nag mooy li nga xam ne moo dalee ca 8 avenue. 8 mhm. avenue between 148 149. 27 98. Dabakh boutique solution nag boo ñëwee. Mhm. ba xool magasin bi. Mhm. di nga xam ni fii professionnel moo fi nekk. li ci ay produits de beauté. li ci beauty supply store li ci karaw. li ci maquillage. lépp loo xam ne li soxla nga ko. ngir euh, mbiru jigéen. Mm-hmm. ak yeneen i mbir yoo xam ne nag sax mënuñu ko wax ci rajo bi mm-hmm. lu soxal communauté bi boo ñëwee di nga ko fekk ci Dabakh Boutique Solution Dabakh Boutique Solution nag yaa ngi fay fekk daaw de Sarr mm-hmm. ci ñuy wax taawu yaay daara boo ñëwee dana la teeru ci anam yu am solo génneel la lépp loo xam ne lii soxla nga ko ci ay prix yoo xam ni prix yu déggi dayoo la waaw waaye yamul foofu ba tey ndax nee na képp koo xamee am nga xéewal gooy yónni yóbbante njaboot gi rek boo jokkoo ak taawu yaay dara dina la ko yónneel ci anam bu gën a rafet bu gën a ah, yomb lool te am na noo xam ni sax boo fa àggee man na doo fay dara waaye ta ah, fa ñu di ci yokk rek njoganalu ah, alxames bi pour ñu clients yi di ko bañ a fàtte alxames bu ndot bu taw bu ñu jullee tàkkusaan ba pare rek ku xiif rek demal Touba boutique euh, demal Dabakh euh, boutique solution di nga fa fekk euh, taawu yaayu daara nga njoganiku ba suur amaan na sax boo fa jógee reer doot ci am yoon waaye faa am na ku dendal de waaw kooku mu dem dal yaay daara nag mooy mhm. prestige multimédia mhm. prestige multimédia mhm. kooku mooy Khalifa Ndiaye Khalifa Ndiaye nag mooy professionnel bi nga xam ne bii lépp loo xam ni téléphone électronique la di computer di wireless di matériel boo soxla wala di am njàqare ci sa cellphone nu mu war a doxe boo yeggee foofu dina la ko defaral Khalifa Ndiaye nag ci ay minutes dina la defal loo xam ne lii liggéey bu am solo la ndax da koy càmbar ba xam fi jàngoro bi nekk ci appareil bi mhm. mu génneel la ko mhm. Khalifa Ndiaye nag mooy professionnel bi nga xam ne bii ah lépp loo xam ne ci wireless ak computer mhm. boo fa duggee sa xol dina sedd kon ku bëgg jot euh, euh, euh, dem précise multimédia rek da ngay dem ba fi nga xamante mooy 2798 8 avenue wala nga woo ko ci diggante 148 149 wala nga woote ci 646 cent 354 84 02 boo demee boo fa fekkee euh, euh, xalifa ak boo ko fa fekkul yëpp mareem dana la recevoir dana la hmm. toppatoo ànd ko ak tey ak yar ak euh, teggin maam fa dañuy dem nag ci suñu beneen sponsor koo xamante ni Abdou Aziz Ndaw Ndukumaan maam fa nga xamante ne Abdou Aziz Ndaw Ndukumaan lépp loo xamante ni moo jëm ci yónnee bagage kenn mënu ko ci muy conteneur ñuy taxawal conteneur bi nga xamante ni jóge woon na Sénégal jox na ko seen borom ba macha allah ñëpp jot na du seen bagage am nañu benn boo xamante ni tamit altine incha allah lañ koy tëj mu war fi jóge war dem Sénégal muy li nga xamante ni mooy conteneur wu Euh, weeru koor ñëpp mm. ñëpp di ko xaar am na tamit buy jóge Sénégal boo xamante ni incha allah war na fa jóge euh, ñëw fii ñu nga ca léegi dinañ ko tëj incha allah ragal naa ni le 10 lañ ko waroon a tëj kon tëj nañ ko ba pare xam naa mi ngi ci yoon wi incha allah waaye Abdou Aziz Ndaw dafa am leneen lu mu ci yokk maam faa dafa am benn oto boo xamante ni oto bi 206 euh, Euh, Nissan Sentrol euh, euh, muy ñeenti cylindre di oto bu bees tàq am kilimatisation di automatique lépp normal lépp parfait oto baa nga ca Sénégal àgg na Sénégal génne nañ ko dédouané nañ ko ba pare képp koo xamante ni bëgg nga oto bi rek wala Euh, Abdou Aziz Ndaw euh, ci numéro am nga jokkoo ak moom mu mën waxtaan ak yow ci euh, téléphone ci oto boobu nga xamante ni ma nga ca Sénégal dédduwaane nan ko oto bu baax la état bu baax boo jokkoo ak ndukkumaan rek incha allah dina la si jox leeral yu gën a leer bu dee ca Sénégal nag da nga bëgg jokkoo ka ca Sénégal da ngay woo Moussa Thioy ci 77 510 20 jërëjëf xanaa ñuy wax Abdou Aziz jërëjëf rek ci liggéey bu am solo boobu nga xam ni mhm. mi ngi koy def ci conteneur yi mhm. jële ko fii yóbbu ko Sénégal mhm. kazalika jële ko Sénégal indi ko fii képp koo xam ni am na sa produit mu jaaxal la ak quantité nu mu mën a toll boo tolloo Sénégal bëgg ko indi fii boo jokkoo ak Abdou Aziz Ndaw Ndukumaan dina la ko indil incha allah ah, mu yokk ci rek ni incha allah conteneur koor bi Euh, altine lañ koy tëj képp koo xamante ne bëgg nga ci am lu gën a ree rek woor Abdou Aziz Ndaw ndukkumaan si muy sunu sponsor yi nga xamante ne ñooy jàppale euh, rajo daara ji bu baax a baax a baax ñuy fàttali mbokk julli ne confédération Tidiane bi seen conférence bu mag bi nga xam ne dañ koy def euh, annuellement dina am le 24 août incha allah dinañ ci ñëw mu gën a yaatu waa daayira lu Cheikh ñoo ko ayee at mi ki leen koy defal nag ni muy Serigne Adi Niass Serigne Adi Niass nag ñëpp xam ka ci fatwa ci Walfajiri mu di ci waxtaan waxtaan yu dugg ci xol yu am solo kon kooku te ñëwoon na fi def si ka fi kon buy ñëwaat ñëpp dañ koy waajal préparé ko muy waa daayira ak lu euh, cheikh ñuy fàttali rek ni cotisation yi 50 dollars yi joxe nañu carnet yi maa ngi carnet képp koo xam bëgg nga barkeelu ci confédération bi rek euh, ci euh, loolu nga xam ne journée boobu nga xam ni journée cheikh bi nga xam ne ñu ngi koy waajal mun nga ma woo jokkoog ma maa ngi carnet am na ñeneen yu yor dinaa ci ñëw ak yéen incha allah ñuy waajal tamit anniversaire Chérif Ousseynou Laye le euh, premier juillet incha allah maam fa ñu ñëw ak yéen rek ci heure julli yi mm-hmm. waaw ndax euh, euh, mbokk jullit yaa ngi woote di ko fàttali waaw ñuy wax ni rek suba incha allah fukki fan ak ñett ci weer wi ñu ñuy fàttali nag ñu ngi ci weeru weeru Shaban weeru Shaban nag di weer woo xamante ni weer wu baax la woor la naka mbokk jullit yëpp bàyyi xel lu ci waay mën woor rek nga woor ko ndax weer wi weeru ngëneel la weer wu baax a baax a baax la kon ñu di ci fàttali ñu koy fàttali jullit yëpp rek ñuy wax ni fajar gi mi ngi ci 345 ñu ni jant baa ngi fenk 5 24 ñu ngi julli tisbaar 12 57 di julli takkusaan 4 57 di julli gee di julli timis 8 29 di julli geewee ñu baamtuwaat ko ñu ni fajar ñu ngi julli fajar 3 heures moins 4 euh, heures moins quart ñuy julli euh, jant baa ngi fenk 5 heures 24 ñuy julli tisbaar euh, midi tout 12 57 muy midi 57 bu midi desee ñetti minutes une heure desee ñetti minutes ñu ngi ñu ngi julli tàkkusaan 4 heures 57 di julli timis 8 heures 59 di julli géewe 10 heures 08 10 heures bu tegee juróom-ñetti minutes ñu bamtuwaat ko fajar gi mi ngi ci 3 heures 45 euh, jant baa ngi fenk 5 heures 24 ñu ngi julli euh, tisbaar 12 euh, 12 heures 57 di julli takkusaan 4 heures 57 di julli timis 8 heures 29 di julli geewe 10 heures. Euh, huit minutes ñuy fàttali nag nag euh, tisbaaru ajjuma ji euh, changé wul ñu ngi koy julli diggante une heure et ba deux heures ci Harlem Taekwondo ba kon maam fa bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni mooy tàggatoo bi looy tàggatoo ak mbokk jullit yi waaw di wax mbokku jullit yi rek di gërëm euh, auditeur rajo daara ji mhm. euh, ci jàppale bu am solo bi nga xam ne ñu ñu koy jàppale mhm. euh, suñu chauffeur yi nga xam ni ñooy bàyyi seen liggéey di mhm. dawal half an hour wala one hour di ñu mhm. yóbbu di ñu indi mhm. vraiment jël seen euh, temps yëpp def ko ci rajo daara ji mhm. li may wax toujours rek yaay daara ne rajo daara ji équipe la équipe la boo xam ne bii mu ci diggante auditeurs yi ak chauffeurs yi ak borom xalaat yu rafet yi nga xam ne ñu ngi ci biti ak euh, borom euh, ñi nga xam ne ñu ngi jàppale rajo daara ji financièrement ñooñu ñëpp ñooy équipe bi ñun dañ leen fay toogal rek. Mhm. di leen di leen euh, nekkal ci machine yi. Mhm. waaye liggéey bu am solo bi nit ñi ci suñu ginnaaw ñoo koy def kon di leen jërëjëf bu baax a baax a baax. Mhm. di fàttali rek tamit fundraising bi euh, nit ñi jëp ci bu baax a baax a baax jël ci seen i ay matuwaay ba suñu fi jógee lañuy soxla dootul war a bari ndax euh, néegu yàlla bi fi mu toll nii. jóg taxaw bu dëgër dëgër dëgër la laaj. jógaat bu dëgër dëgër dëgër la laaj mhm. euh, di wax ñëpp rek di leen jox courage di leen encouragé pour ñu def ci seen alal ak jóg wuti luñ ci def incha allah xam naa semaine bii di ñëw bu soobee yàlla mooy nekk sunu sunu page spéciale euh, muy néegu yàlla boobu kon ñu dégg li ñu wax ci def ci Euh, néegu yàlla kon euh, faa tegal sa baaraam ma joxe bal dara zawayaw loolu la leen rajo daara ji tàggoo di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal sunu bopp di leen jox daje àllarba bi di ñëw di ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee bu ne ñu mën dellu si waat mën leen indil li nga xamante ni mooy bégal euh, euh, soppee rajo daara ji kon Mor Mbuub Mansour yaa moom ziyaar bi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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم صلاة تعرفنا وتوصلنا بها إياه وتغفر لنا بها ذنوبنا وترحم بها موتانا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج المسلمين وتشفي بها أمراضنا القلبية والجسمية شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا وجعا وتسوي بها صفوف المسلمين وتوحد بها كلمة المسلمين وتؤلف بها بين قلوب المسلمين كما ألفت بين الروح النوراني والجسد الظلماني وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله alhamdulilahi rabbil alamin alaaji sa ziyaara ngoog sa ñaana ngoog yàlla nañ ko yàlla boole ñuy jox daje euh, mbokku jullit yi daje àllarba bi di ñëw di ñaan yàlla may ñu tal may ñu fekkee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala